problème mooy comment maintenant modifier la loi. Mhm. parce que bëgguñu woon ñu laalaat li nga xam te moom mooy loi bi finalement bon ça n'a pas abouti amuñu ci consensus. Mhm. deuxième point bi ñu soulever waat te man sax man maa ko njëkk ko soulever muy le bulletin euh, le problème euh, le format du bulletin. Mhm. parce que xam nga dañuy dem ci législative li ñu am ci liste bari na. temps yi c'est très serré. man léegi est-ce que du duñu réduire le format parce que bu dee élection législative on a un format sur A4 mhm. mooy bu rëy bi que bu dee présidentielle dañuy am le petit format bien bu ndaw bi te le petit format boo ko jëlee mën nga ci am 4 bulletins mhm. bu dee da nga utiliser a bi A4 bi tout à fait non seulement dina wàññi xaalis bi comme que réew mi amul xaalis mais aussi dina faciliter temps d'impression bi donc rapidement mën nañu imprimer mais là également on a pas eu de consensus mu des benn point muy maintenant est-ce que duñu décaler duñu alléger euh, délai de dépôt délai de dépôt yi. alors loolu nag mu nekkoon lu am solo. mais loolu ni ñu ko doon defee dañuy cof ci délai yi. non cest dañuy bàyyi. ñu mhm. déposer le samedi déposer le dimanche soit ñu yokk ci lundi mardi ba mercredi. Mhm. donc moo tax ñu proposer ne ñu allo ñu allonger ko ñu euh, prolonger ko de soixante-douze heures ou bien à une semaine. parce que ñii dañuy 72 heures ñii ne une semaine. donc délai de recours yi aussi gis nga toxu na. voilà donc loolu li taxoon ñu proposer ko mooy. mais finalité Babacar parce que baax na ñu taxaw foofu loolu dafay tekki ni aussi bu délai de recours yi toxoo ñu ngi gën a jege élection bi. mais mais bu ñu defoon. bu ñu def ci lan lañ koy cof ci délai campagne bi. non non non nañu bañ a cof wala a egg foofu. non du am benn impact. et ça je je je woon am benn bu ni dafa gudd yenn gudd yi. boo demoon ba une semaine. peut-être mun na am benn conséquence ci agenda bi. Mm mais boo ko defee deux jours wala trois jours nar woon am benn impact benn incidence mhm. sur le calendrier. Mhm. parce que bi ñu jubewul ci casier judiciaire bi ñu ne d'accord kon xëy na bu dee délai bi dañ ko allongé. Mhm. dañ ko allégé mais à partir moment kon nit ñi bu ñu amaatoon deux jours war nañ mun a am possibilité pour dem euh, wuti casier judiciaire te très sincèrement man la ministre bi ñu wootee euh, rencontre bi Euh, Abdoulaye moo wax la mais jour bi nga xam ni commencé nañu dépôt ñu woote ci ndaje pour waxtaan. Mhm. mais man damay jàpp que ni. woote wuñ ndaje bi rek jusque pour que après ñu ni jëluñu benn décision parce que jour moment bi ñuy waxtaan moment boobu am na ñoo xam ni ñoo ngi ñoo ngi def ñoo ngi def seen dépo donc bu ñu wootee c'est-à-dire le principe le soubassement mhm. de cette convocation ñu génnee fa dara. mooy ñu génne fa dara. te mhm. génne fi dara bu mooy dañuy jàppoon que ni. war nañ fa mun a am benn consensus boo xam ne dina permettre. mais est-ce que a jàpp aussi nii wax dëkk fa yàlla comme dem nañu ba tàmbali. Mhm. est-ce que jarati woon na waxtaan quand même. waaw bon loolu aussi c'est très normal. Mhm. loolu xel mun na ko nangu. parce que jàpp naa ma li ma gëm mooy waxtaan bi c'était avant. ñuy déposer mhm. parce que am na sax ñoo xam ne dañ ni tey bu ñi ñi nga xam ne dañ jot a déposer dañ ni bu ñu accepter ñu yokk ko dafay am rupture d'égalité préjudice pour ñoom day am ah, mais man li ma foofu li ma mooy. ñi nga xam ne déposé nañ dama jàpp que ni amuñu benn difficulté parce que ku déposé mooy tu n'as pas de difficulté pour am casier judiciaire mais ñi nga xam ne dañu am problème pour am casier judiciaire ñu dama jàpp que ni waroon nañ leen mën a defal benn dérogation pour que ñu mën a dem euh, wuti casier bi ba pare moo wax la gis nga élection anticipée dañu nekk ci régime dérogatoire mmh. régime dérogatoire la donc ça dire que il ne couté rien à ce nouveau que ni uniquement par décret ñu jël décret ne voilà léegi yokku nañ ci deux jours trois jours parce que élection anticipée dafa nekk élection yoo xam ni pour man processus bi lépp dañ koy waxtaanee. Mhm. mais pire encore bu doon démb bi ñu parce que bi ñu génn ci salle man très sincèrement à quatre vingt dix cent jàppoon naa ni que dinañ toog ñu ne ñu wéy yokku nañ ci ñaari fan wala ñetti fan. Mhm. maintenant bu ñu demee ba xam ni naru ñu koy yokk mais li gënoon jaadu mooy à dix-huit ñu def communiqué ne eh, yéen kat fexe leen suba ngeen matal. mais journée boobu waxuñu dara donc les gens en sortant dans la salle. ils se mhm. disent que ni effectivement suba bu ñu xëyee dinañu yokkal deux ou trois jours. Mhm. mais ñu bàyyi ba ci lendemain bi ñu bàyyi ba ci mhm. génne communiqué bi pour wax que ni effectivement voilà donc finalement amuñu benn donc finalement li ñu demoon donc amul sens. ba pare man gis nga xam nga temps yaa y' yaa y' a y' une semaine on a fait un communiqué pour alerté sur les cas d'irrecevabilité. gis nga bu ñu deful nag il y aura beaucoup de yoo xam ni dañ leen di rejeter. parce que gis nga yaa ngi koy wax léegi le casier judiciaire dafa bokk euh, parmi les mentions obligatoires yi nga xam ni l' article L149 L173 du code électoral dañ ko prévoir parce que dafa am dans le dans le document liss bi dafa am mhm. ay pièces yoo xam ne yoo xam ne mënut a ñàkk mënut a ñàkk te bu baaxul it te non te liste yooyu te pièces yooyu daf ci bokk li ñuy wax un casier judiciaire parce que boo defee sa déclaration de candidature individuelle loi bi dani la article cent L cent soixante-quatorze du code électoral dani la da ngay produire benn extrait de naissance de temps moins de six mois. Mhm. wala nga produire euh, une carte d'identité biométrique CEDEAO légalisée. Mhm. nga boole ci un casier judiciaire datant moins de trois mois. Mhm. qui n'a pas de charge. donc ça fait partie des mentions obligatoires. donc ñi nga xam ni amuñu ko donc certainement. y a de fortes chances que seen liste ñu rejeté ko te nag wax dëgg yàlla comme dañu nekk ci élection anticipée le président il a opté pour le minimum wax nga ko léegi 60 mhm. jours. mënoon mhm. na dem ba 92 xëy na moom moo am raison yi xam li tax mu ni 60 jours laay jël ñu nangul ko ko mais je pense que ñaari fan ñu décalé ko amul woon benn impact sur l' agenda. mais ça, ça nous amène à s'interroger Abdoulaye wax dëgg fa la peut-être initiative bi baax na dem seeti ministre de l'intérieur mais ça nous amène à nous interroger sur est-ce que. waxtaan boo xam ne process bi tàmbale na déposé yi wax na ko am na ñoo xam ne peut-être amuñu problème déposé nañ mais ñooñu yaa xayti mën nañoo ne waaw ñun li ñu def ba góorgóor ba déposé ñëpp noonu la ñu waroon def te bu ñu ko yokkee bu boobaa ñoom sax mën nañoo gis ni ah ñu ngi leen di xañ wala rupture d'égalité boobu finalement am na te comme ndaje mi dara génnu ci est-ce que du euh, peut-être par regret sax ci am initiative waxtaan est-ce que jarati woon na ko pour waxtaaniwaat. waaw mais xam nga euh, waxtaan. Euh, dafa nekk lu consubstantiel à la démocratie. xam nga démocratie waxtu defee ay jéego rek avancé bu mënti rek waxtaan moo ko dal ci suuf. donc même xam nga sax euh, yeneen point yi c'est vrai que ñu ngi nekk ci benn élection mais ministre de l'intérieur nee na maa ngi koy wax nii classe politique bi les acteurs politiques léegi dama bëgg bu ñu génn ci léegi ñuy waxtaan régulièrement am benn cadre boo xam ne ak benn. périodicité boo xam ne mhm. ndax day nekk semaine bu nekk weer bu nekk ñaari fan yu nekk ñetti fan yu nekk mais il faut ñu tënk loo xam ne benn cadre ak benn périodicité boo xam ne dañuy toog acteur politique yi ak ministre de l'intérieur di waxtaan kon xam nga loolu déjà mhm. lu génn ci réunion bi la lu am solo parce que point yooyu nekk na tey benn consensus boo xam ne classe politique bi ànd nañ ci mi ngi mel ne après plus tard dañ ko waxtaan affaire liberté publique yeeg affaire marché yooyu loolu aussi am na lu mu ci leeral mais xam nga li gënoon itteel nit ñi mooy nan la ñuy defee élection yi xam nga boo demee ci constitution bi président de la république def na li nga xam ne yoon daf ko ko may ndax 60 minimum 90 maximum dafa jël 67 mm-hmm. jours mooy juróom benn fukk ak euh, juróom ñaar mm-hmm. nga xam ne ci ay fan lay jël pour ñu def ci élection ndax waxtu woo dissoudre assemblée nationale constitution may la ko tout de suite war nga jël date boo xam ne da koy fixé pour élection mhm. yi législative mais xam nga situation exceptionnelle solution exceptionnelle li Babacar wax te muy lu wér ñëpp ànd ci xam nga élection anticipée bàkkut ak élection normale parce que fekkoon mhm. élection yi tey dañu bàyyi mhm. assemblée nationale def juróomi atam ba mu jeex tàkk ñëpp di ko xaar lépp dafay yomb mais comme dañu dissous assemblée nationale tout de suite day nekk mel ni élection normale kon kii day jàpp fii bàyyi lii kii jàpp lii bàyyi lii ñu mën a déggoo ndax au-delà de tout ça qu'est-ce qui était en c'est le Sénégal sa démocratie mhm. te il faut faudrait que wax dëgg yàlla acteurs politiques aussi accepter di mettre à la hauteur de l'histoire politique Sénégal nan ngeen apprécier bañ a mayee njekk bi ci quand même non euh, xam nga en fait bi alors que bi ngeen fay génn am ngeen yàqin ni xëy na enregistré na ko te waaw xam nga ministre aussi Euh, dédouané moo ko ministre de l'intérieur mais tënkul boppam. Mhm. dafa ne déglu naa leen dégg naa leen. Mhm. li ñuy wax ñaar minimum ba jëm une semaine. loolu nag comme wax nañ ko jàpp naa ko dinaa ko waxtaan ak ay samay kilifa donc du ñàkk ni xëy na ba mu waxtaanee ak ay kilifaam après moom ci wàllu boppam am na ci loo xam ne tënk na ko ak ay kilifaam am na ci loo xam ne mënu koon ñàkk may def parce que ministre de l'intérieur yow yaay organiser élection yi nekk kilifa administration. électorale bi parce que administration électorale bi pré patron bi mooy directeur général des élections mhm. nga xam ne tey mais li ñu ci jaaxal li ñu ci jaaxal la question à tous les deux Abdoulaye li ñu ci jaaxal hmm. mooy xëy na c'est vrai que depuis quelques années quand même dañuy wax ni loo xam ne dem na ba nekk consensus loolu moom kilifa yi dañ ci daan dogu xëy na boo amee ay points de divergence lañ naan waaw loolu moom dañ koy jotal kilifa gi déglu ko point bi nga xam ne moo nekkoon ci rapport yi ñi nekkoon ci jotaay bi yëpp dañoo tënk woon ci ñaan yekk maanaam consensus la bu ngeen amoon am déet. waaw xam nga euh, li ma la wax sànq mooy. non dégg naa ni moom tontu na leen ni dina ko wax ay kilifaam. Mhm. mais kilifaam est-ce que peut-être bu fekkee ni ci li fi jot a jaar ni fi procédure électorale di demee. Mm. lañuy ñuy tënk mooy lu ngeen déggoo ci consensus moom dañu ci dogu. point boobu est-ce que consensus amoon na ci salle bi ba ministre de l'intérieur war koo rapporter fidèlement ne président wala premier ministre à point bi day ñëpp d'accord nañ ci bu boobaa mu xaw a yomb ci président wala premier ministre pour ñu nangul ko ko loolu laa bëgg a xam mais xam nga en fait ci biir réunion bi lii dëgg bay dëgg aussi le ministre de l'intérieur il était là mmh. on suppose que il est dans le camp du pouvoir mmh. mais lui en tant que qu'organisateur deux élections mhm. patron de la DGE mais acteurs politiques yi mhm. les opposants ñoom ñoo fa nekkoon parce que ñoom ñoo amoon keroog désaccord ak ministre de l'intérieur mais parti au pouvoir bi nekku fa woon ma nekku fa woon man gisuma ah, leen parti au pouvoir nekku fi woon non non man gisuma leen que je cherche j'avais pas vu non man gisuma leen non gisuma leen c'est-à-dire j'avais regardé xool na loolu problème mais loolu posé woo leen ko. no en fait motion pour laajte enfin wala non les les leaders les plus en xam nga tey booy xool dans une salle où ya une euh, centaine de représentants. xam nga supposons tey booy xool le parti au pouvoir les leaders les plus en vue les les responsables les plus en vue. mais Abdoulaye am na loo ñuy wax ci njëlbeenu kàddu. Mhm. yéen a euh, sol seen dal dem seeti ministre de l' mhm. wax nga ñu aussi ni yéen a seeti gi. est-ce que boole ngeen ci seeti waa waa waa majorité président waaw mais xam nga rëq-rëq bi. xam nga boo xool ci dernier réunion samedi bi dangay ngay gis tey atmosphère détendue bi Babacar mën na ko seede. Hmm. tax na tey Omar Sarr ni mu crispé woon ak ministre de l'intérieur loolu xam nga dafa ñëw c'était dans une atmosphère détendue donc réunion bi ñu defaat nii du perte et profit. am na ci ay avancées yoo xam ne gis nañ ko parce que d'abord atmosphère bi nga xam ne tey amoon na ba Omar Sarr wax li mu wax ñëpp dégg nañ ko du ma ci dikkaat yooyu ministre de l'intérieur taxaw fi mu taxaw réunion ba tas bii pas bi mu dikkaatee ñoom dañu def ay échange de civilité. Abdoulaye donc Abdoulaye mhm. je vraiment savoir ci initiative bi bu leen ko nangulee. Mhm. ni comité ad de facilitation ñoo ko dox. Mhm. te wax nga ñu ni seeti ngeen ministre de l'intérieur may leen njekk ci ne nangu naa waxtaanaat. ngeen seeti ku jéggi opposition bi. ci ne nangul nañ leen woon nañu waxtaanaat. wax dëgg fa yàlla yëf yi ñaar la majorité opposition. est-ce que ñi nga xam ne ñoo féetewoo nguur gi. am na wax ngerteen ngeen ak ñoom wala loolu da ngeen yaakaaroon ni cëru ministre de l'intérieur la mu convoqué leen. waaw mais en fait loolu laa la wax ci njëlbeen gi ne la ministre de l'intérieur su toogee bien que dafay organiser élection nga xam ne tey d'abord un personne na peut le soupçonner de politique parce que c'est un général mais dangay jàpp war a mën a nangu ne moom tey bu fa toogee tey bien que dafay organiser élection. mais te en tant que ministre de l'intérieur am na ci camp bu nga xam ne bien que moom amul ko may ma rek amul non may ma rek may <laughs> ah, ah. rek non expliqué xam nga amul coloration politique mhm. amul coloration politique mhm. mais su fekkee def nañ une première réunion opposition bi am ci ñoo xam ne amoon nañ moom ay échange aigridu yoo xam ne finalement lay gens soo mhm. sont dit que ni non lii baaxul donc ñi nga xam ne gedd nañ dem parce que c'était l'opposition donc ñun bu ñuy jóg di wax ak ñoom waa ATEL particulièrement qui était dirigé par Khalifa Sall Khalifa Sall tout le temps était en train de discuter avec Alioune Tine mm-hmm. et que bi nga xamee ne tey euh, Omar Sarr ñëw na bokk ci ATEL comme Benoît comme d'autres représentants d'autres responsables politique donc comme problème bi foofu la nekkoon particulièrement il fallait que ñu fexe ba ñoom seen biir ñu déggowaat par rapport à l'organisateur des élections c'est pourquoi moo tax je pense que ni très honnêtement le comité de facilitation son rôle était particulièrement axé sur le retour de l'opposition parce que tey xam nga def nañ fi élection législative mmh. 2007 date de repère xam nga dañu def élection présidentielle Abdoulaye Wade gagné mm-hmm. bi mu gagné au premier tour ñu teg ci législative mmh. Ousmane Moustapha Niass ak Idriss Seck dañu boycotté élection législative yooyu mm-hmm. bi ñu ko defee malgré tout ça Abdoulaye Wade a organisé les élections législatives et a gagné les élections législatives rappelez-vous période boobu même boobu moo Modou Diagne Fada mm-hmm. ak waar wi jóge woon na euh, PDS donc il y avait pas mal d'opposants ou de néo-opposants yoo xam ne après demoon nañu fekki mouvance présidentielle bi Abdoulaye Wade a eu la majorité pour avoir une assemblée nationale qui lui permet de légiférer. Mhm. donc man jàpp naa ne boo gisee malgré que dañu doon discuter déggoo bañ a déggoo opposition bi jëloon na ay matukaayam parce que ñoom ñëpp calculer woon nañ ni dimanche bi mooy date butoir bi. Mhm. donc jël nañ seen i dossiers yóbbu nañ ko. donc moi je pense que ni dañu nekkoon ci logique politique wala logique politicienne mais quel que puisse être figure. opposition bi jamais seen xel du woon nekk ci ne dañuy taxaw pour boycotter l'élection euh, les législatives anticipées euh, du 17 novembre ba tax na tey xam nga aussi logique gu organisateurs yi logique acteur société civile ak logique acteur politique dalul bokk parce que acteur politique yi ku ci nekk am nga aujourd'hui agenda caché. Mmh. et coalition yi nga xam ne mooy ñetti coalition yi gën a mag ku ci nekk am ngay écueil yoo xam ne du ma ne c'est des écueils insurmontables mais dina jafee lijjanti parce que tey boo xoolee ñetti coalition yi gën a hmm. gën a gën a am solo ñëw ci analyse élection bi waaw boo boo xoolee rek damay tënk rek avant avant avant may dellu ci hmm. parce que ku ci nekk am ngay problème interne yoo xam ne tey kan mooy nekk sa tête de kan mooy nekk sa tête de kan mooy nekk sa tête de ak kan mooy nekk ci ñi ñuy investir hmm. xam nga déjà loolu rek problème la parce que bu fekkee ne ay parti yu bari ñoo dajaloo xam nga atel lim doon xeex moom. <laughs> lim doon xeex leen rek la na ah. mooy transparence transparence des waaw dama ne xam nga tey atel booy xool. transparence des élections rek moom loolu leen boole woon. Mhm. mais bu ci weesoo loolu tey coalition yi ci bokk yëpp dañuy dem ku ci nekk jéem a régler ji kan ngay investir ak kan moo nekk tëddali. donc loolu moo tax ma ne la gis nga tey acteurs politiques yi toujours ak lu mu mënti demee dañuy am ay logique yoo xam ne souvent day nekk ay logique politique wala logique politicienne. Mhm. ba tax na tey. ki nga xam ne day organiser élection yi boo xool tey euh, DG boo ko déglu bu baax. Mhm. la directeur des élections xam nga tey fan boo ci yokk. Mhm. day am incidence xam nga ci lan incidence yi. Mhm. confection liste yi parce que xam nga confection liste yi euh, euh, Ablaye boo fekkoon ñaari réunion yi nga xam ne def nañ ko bu njëkk bi ak ministre de l'intérieur ak bi ci topp dadul lu yomb. ndax xam nga d'abord un papier bi nga xam ne moom la ñu war a jël daf koy bulletin. nekku fi bitim réew la ñu koy wuti ji. ba pare xam nga buñ ko indi fii DG jël na disposition. mais mais loolu dinañ ci ñëw ci vraiment disposition organisation pratique bi dinañ ci ñëw Babacar peut-être ma jël Mamadou Seck. qui est en lii mm. après premier parce que quand foog ñu xam Babacar c'est ndaje bi. Mm, tout à fait euh, daje sans sans la man. Mm. en tout cas ni ma ko xamee. Mamadou Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdoulaye. ñu ngi am mbégte aussi boole la ci jotaay bi ancien directeur exécutif du Forum bien sûr expert en gouvernance démocratique. bokk it ci vraiment acteuru société civile bi euh, xëy na teewlu nga euh, wala nga am ci ay compte rendu ci organisation yi nga bokk aussi ndaje bi nga xam ne moo mujjee am diggante ministre de l'intérieur ak kujje gi euh, finalement sax sañ ma wax ñëpp parce que ñi fi nekk nii ci plateau bi te di ma bokkoon ci ndaje moomu gisuñu fa ñi nga xam ne ñoo féetewu majorité présidentielle en tout cas ñu féetewoo ak nguur gi Mamadou Seck processus bii nii ñu tàmbali te nga xam ne fii ak waxtu ñu tëj dépôt yi est-ce que daf ñuy jëmale ci mën nañoo jëmale ci élection yu yu dal ak processus boo xam ne ni bu équitable la pour ñëpp am déet. waaw ah, Abdoulaye maa ngi lay nuyu d'abord di nuyu ñu nekk ci plateau bi. Hmm. Abdoulaye Fofana Seck Babacar Ba. alors ñu euh, wax ni rek question bu xaw a jafe la ndax day mel ni presque euh, gisaane un peu mais. li ñu mën a jàpp mooy xam nga élection moom y a trois types ñetti ñetti anam la. Hmm. élection de sortie de crise yooyu ci pays yi kon yu am crise la nga xam ni bii buñ koy organiser élection yi presque da ngay comprendre que communauté internationale sax dañuy indulgente ci ni ñuy organiser parce que ñoom l'essentiel c'est d'organiser mu mel ni Côte d'Ivoire en deux mille quinze Guinée-Bissau en deux mille quatorze et cetera ñoom élection sortie de crise la woon ba ñoom à minima sax lañ organiser woon après moom élection de consolidation de la démocratie mooy dëkk yi nga xam ni gën nañu difficulté ba dem ci ay transition ba war a gérer processus bi di dajale les prérequis d'une élection qui rep ñu ci anam yu yu ñu mën a nangu Sénégal nag dafa dafa dafa weesu loolu dañ nekk ci élection d'approfondissement de la démocratie dootu ñu ñu baal dara parce que dañoo yàgg organiser élection nekk ci euh, yàgg relever défi yi nag Euh, daf ce rawati parce que dañoo war a organiser élection ci contexte bu ñu jafee nekk ci ay on vient d'avoir un changement politique dissoudre assemblée euh, ba pare xaw a laxas xaw a laxas élection yi ci question de de redevabilité donc euh, moo tax mu jafe ce qui fait que atmosphère bi day tendue ba tax na bi bii ñu ñu jox soixante jours soixante six jours pour ñu organiser fii c'est un gros défi moo tax j'avais pas compris lu tax lu ñu woon sax discussion yi avant de de de présenter le calendrier yenn say yi discussion yi c'est juste pour faire passer la pilule parce que la pilule est là mooy le calendrier ak euh, contexte bi ni mu jafee et cetera ma joxe benn exemple parrainage bi li wéttewoon mooy ñoom ñëpp biñ ne dindi nañ parrainage bi soufflé nañ noyyi nañ mais ñu ci bari tey dañuy jaar ci ginnaaw rek pour dire euh, euh, assoiruñ ko ci consensus alors que boo xoolee ñoom ñëpp arrangé na leen moo tax consensus amoon solo li ma jàpp mooy euh, fi ñu toll défi la mais boo xoolee calendrier bi niñ ko tegee nii c'est tenable c'est tenable quel que soit par ailleurs nag liñ mën a wax ci décision conseil constitutionnel liñ mën a wax ci euh, le décret du président parce que la loi prime sur le décret sa on est d'accord la loi électorale moo tax ñu waroon a mën a waxtaan sax avant ñuy dawal décret bi parce que consensus ci yenn lu mel ni élection yu mel ni consensus dafa am solo ba yenn saay sax day ëpp doole loi bi bu ñëpp toogoon nangu ko nangu ko doxal waaye li ma gis ñuy concerté wu xëy na ñi ngi jéem a dabu li leen rëcc loolu aussi lu am solo la ci kaw rek ñu continuer ci concertation yi ñu jiital consensus bu ñu ko jiitalee rek je pense que dinañ mën a dem ci processus bi euh, sans trop de de casse et éviter de surtout les contentieux post-électoraux donte Sénégal historiquement le contentieux post-électoral est pauvre généralement contentieux bi pré-élec ci avant l'élection la mais booy xool contentieux poste électoral dafa pauvre bon loolu y' a beaucoup de déterminants qu'on xëy na du wax bi tey mais y' a des ki qui expliquent que le contentieux poste électoral pauvre euh, mais li ma jort rek mooy tey ni ñu gisee calendrier muy déroulé wu ak ni ñu respecté phase yi li ma ci metti rek mooy ñaari fan de dépôt la xat na beneen bi mooy mënuma comprendre ma lu tax ñu bàyyi campagne vingt et un jours alors mun alors que mënoon nañ ko réduire à quatorze jours mayaat les coalitions une semaine encore pour ñu organiser wu encore parce que vingt et un jours de campagne on a expérimenté la présidentielle quatorze jours c'était bon mënoon nañ réduire quatorze def ko quatorze jours joxaat nit ñu une semaine ñu soufflé waat joxaat leen un peu ni ñu koy waxee ci wala filage un peu ñu mën a organiser wu waat loolu rek man moom ma ci xawoon a jaaxal quoi. Mamadou Seck rapidement yaa ngi wax quand même euh, suñu démocratie ñu toll ci approfondissement démocratie lañ toll. bon manifestement quand même on encore un apprentissage affaire parce que gis nga ko bii nii ñu ngi buté ci ay affaire yu yu yu terre yu simple ay casier judiciaire rek affaire affaire yooyu donte loi prévoir na ko mais lu ñu mënoon a la peut-être facilement ni ko acteur société civile yi proposé mais gis nga ni on bute encore sur ces choses là xam nga ci dara parce que bu yàggul fan yi rek teewee nga projection documentaire boo xam ne dañ ko duppee le paradoxe sénégalais ce présenté par Gaël Babacar mbay d'ailleurs sur la situation wu élection au Sénégal mu tuddee que le paradoxe sénégalais maanaam li nga xam ne dinañu surfer parfois avec les limites mais au bout du compte finalement le peuple arrive à s'exprimer de façon euh, paisible est-ce que fii tamit nekkuñu di créer problème yoo xam ne mënoon nañ ko surmonter quand même facilement avec le dialogue jàll ci leneen te xëy na du yàq dara ci élection bi parce que problème mu casier judiciaire boobu li société civile bi proposé foofu foofu ci ndaje mi mënoon na doon point de consensus quand même am déet. Ah, absolument ak ànd naa ci loolu lu ci bari moom man jot naa ni buñ toogee waxtaanee ko mën ko mën ko surmonter euh, surtout que en réalité. on voyait venir ah man y une semaine ne woon naa gis ngeen l'appareil judiciaire sera sursollicité et que donc il faut ñu jël les dispositions pour gérer question casier judiciaire bi te loolu ëpp ma xam-xam ci dëkk bi pour mën a gis loolu c'est c'est vraiment c'est c'est simple à voir il suffit juste nga questionner le processus euh, yi passé xam ni casier judiciaire bi dina poser problème rawatina nag que même tey boo demee tribunal di wuti casier judiciaire en temps normal rek c'est la ruée ak heure bi ñu koy joxee le temps d'attente et tout ça là nga xam ni donc l'appareil judiciaire allait être surcommuniqué. il faut peut-être ministre de la justice génnewoon na communiqué boo xam ne pratiquement dafa def guichet spécial ci tribunaux yi nga xam ne ñooy joxe cas judiciaire pour mën ko yombalal acteur yi loolu aussi xëy na mën naa justifier lu tax nit ñi ne casier judiciaire bi du poser problème ba tax ñu jaar ñu reporte ko parce que quand même jël nañ ay mesures de facilitation est-ce que nag c'était diligent ou pas peut-être sa c'est une autre histoire mais garde des ministre de la a fait quand même un communiqué pour instruire ay tribunaux yi nga xam ne ñoo dépendre ci moom te ñooy joxe casier judiciaire pour ñu fexe nañu ko yombalalee ñi nga xam ne dañuy ñëw en tout cas di ko wut te bokk ci ay war koo déposer ci liste absolument absolument loolu am na moo tax rek ma def ci consensus bi yenn saa yi nga dem ci dëkk yoo xam ni exemple bi dama ko joxe joxeti ko joxeeti ko en deux mille seize en France gis nga am na bourgade yoo xam ni toutes les bourgades de mois de mille habitants ont voté cent cartes d'électeurs te loolu dañ ko tegoon ci consensus dañu dem ba veille élection bi on s'est rendu compte que même France dañu amoon jafe-jafe ci distribuer les cartes d'électeurs à temps ñu ni léegi les bourgades de moins de mille habitants ña fa ne mën nañu voter sans carte d'électeur bon ma la ko on sait que les bourgades de moins de mille habitants on sait le le le magasin le le le, le docteur du coin l'infirmier du coin le pharmacien celui qui tient le bar du coin et cetera xamante nañ seen biir ba euh, ceux qui tiennent les bureaux de vote savent qui vient voter mm-hmm. mais loolu li taxoon ñu asseoir ko mooy consensus donc il nous a dit dans la matière électorale nga jëm ci loi électorale bi uh-huh. à partir du moment où yéen asseoir ngeen consensus rek ngeen mën ci dem lool moo tax Sénégal surtout amoon taarixu toog di waxtaan euh, même si toutes les choses sont en place bonne pratique la woon bonne pratique boobu doon na doo doon na baax avant même que le décret sorte la l'avis la décision du conseil constitutionnel mais ñu waxtaane loolu lépp ba tënk ko ba teg bu ko defee dañuy dérouler sans trop de difficulté. Seck jërëjëf peut-être ci kanam dinañ la soxlawaat bu ñuy euh, ñekkee ci yeneen réflexion parce que man li nga wax ni approfondissement la ñu nekk quand peut-être que ça ça ça questionne hein, puisqu'on bute encore sur des questions très très terre à peut-être qu'on se berce d'illusions aussi en pensant qu'on est dans un truc de renforcement de notre démocratie mais xëy na am na yeneen yu terre à yoo xam ne quand même feneen réglé nañ ko mais ñun ñu ngi ci des ba léegi. mais peut-être qu'il faut voir le verre à moitié plein merci beaucoup Mamadou Seck merci jërëjëf Babacar Ba <laughs> ci ci dialogue bi Babacar wax dëgg yàlla man. Mm-hmm. si j'apprends de vous que ku jéggi ñu doon majorité nekkuñu fa woon. Mm-hmm. Euh, est-ce que loolu mënul justifier. Mm-hmm. ministre de l'intérieur parce que aussi politique la ah ñu wax ko. tout parce que est-ce que ministre de l'intérieur mënoon na joxe foofu wala kilifa yi mënoon na joxe accord te ñi nga xam ne bu ñu dee seeni farandoo aussi ay acteurs lañu. war a bokk ci ndeyam te joxewuñu seen kàddu imaginer ñu joxewoon woon ko par exemple léegi parti bi nga xam moo nekk au ne ñun ah ñun d' ñu ci loolu lu tax ñu koy def et c' était très possible quand même non ñu d' accordee a une dissociation du parti et de mhm. waruñoo mën a jël dogal boo xam ne tout à fait parti bu important boo xam ne ci ku jéggi mu ngi fi d' ci d' accord naa ci ak yow parce que man li ma jàpp mooy posture bi fa le de l' intérieur nekkee mhm. da nga koy différencier ak posture état bien sûr loolu mooy li jaadu. Mhm. Euh, c'est vrai. Euh, le doyen différencier ak posture parti. waaw posture parti. Mhm. moo le doyen Abdoulaye li mu wax dafa toogal mhm. parce que xam nga peut-être le groupe euh, ad ñoom bi ñu dem. jàppoon nañ que ni effectivement fii moo am problème c'est l'opposition. dañ dem waxtaan ak ñoom. mais c'est vrai man ci biir salle effectivement gisuma fa en tout cas un ténor. boo xam ne ñoom am nañu njort bu rafet rek. ci ne ministre bu woote dina woo ñëpp. mais Abdoulaye loolu lépp weesoo très sincèrement dama am déception ci ci rencontre bi xam lu daal mhm. parce que boo mënuma d'accord mënuma gëm que un samedi jour boo xam ni ñoo ngi def dé ñu commencé nañ déposer liste yi mhm. le ministre de l'intérieur woo les acteurs politiques ne leen ñëw leen waxtaan te avant boobu boo fàttali ko ci communique conseil des ministre c'est le président de la république lui-même qui avait demandé à ce que ñu waxtaan mhm. kon bu ñu jàppee que ni président ci communiqué conseil des ministres jox na ndigal le premier ministre pour que ñu waxtaan ci mbirum processus bi ñu xëy un samedi ñu wooñu nañ kaa leen ñu waxtaan fekk avant boobu amoon na ay jafe-jafe mais mënu woon gëm ni waxtaan boobu mën nañ ko tenir génn ci te amuñ ci solution. mais Babacar est-ce que vous n'êtes pas bercé d'illusions à partir du moment où. une partie importante quand même. waaw mais nekkuñu ci waxtaan bi xam nga loolu loolu d'accord non non c'est un fait c'est un fait boo xam en compte. ça mm-hmm. c'est très important. li nga li parce que doonoon na leen permettre ñoom xëy na ñu joxe seen avis ci mbir mi daar daar mais loolu tu as tu as bien vu. je pense que loolu waroon nañu fa mën a nekk. mais tamit ci beneen côté bi mën nga jàpp que ni xëy na ñoom ils ne sont pas dans des difficultés ñii ñoo am problème ñëw di ñaan njekk te loolu ma wax ko lu mënoon nekk la c'était possible à ce que ñu reporter euh, date de dépôt bi ñu décaler ko de deux jours mhm. Abdoulaye boo fàttalikoo fii expert bi moo ngi koy wax léegi mhm. consensus mais dafa baax ci mbir mhm. te consensus waxtaan xam nga fa la fa la waroon njëkk a commencé keroog bi conseil constitutionnel joxe génnee génnee décision mu décision am di wax président bi ko président saisir di ko laaj ndax mun a tas assemblée mu tontu ko ne ko mën nga tas ba ñu waxtaan ci date bi. Mhm. pour man à parti de ce moment bi président jotee la décision. juillet juillet. Mhm. ci lañu waroon ubbi waxtaan. parce que gis nga consensus moom mooy moo door du c'est-à-dire consensus bu amul surtout nag ñu nekk ci election boo xam ne c'est pas une élection qui est générale. c'est une élection d'exception une élection anticipée ou foo xam ni délai yi dañ koy jéem a di ko tapp tappal di ko dajale loolu ala kulli àll. li jaadu mooy nga woo sa opposition wala boog nga woo les acteurs yi nga xam ne ñoo seq le processus muy ay Sénat les observateurs la société civile les acteurs politiques les euh, les entités regroupant des personnalités indépendantes ñu toog autour du processus pour que ñu mun a am ay consensus parce que loolu boo ko deful après boo sàgganul da nga nar a dem ci ay contentieux électoral yoo xam ni. Mhm. duñ ci génn tey code code électoral bi ñu am. muy code Kéba Mbaye de lan moo ñu ko jox. Mm-hmm. si consensus la. c'est-à-dire c'est le code consensuel de 1992 parce que il y a eu des discussions. Mm-hmm. ba tax na keroog lañ la ñu tënk ci code électoral bi xanaa ñun ñu bëgg rek ne xaaru ñu modifier am lu ñu dugal. Mm-hmm. mais mooy base bi nga xam ni kenn mënu ko dindi parce que lañ fa nekk yëpp acteur politique ñoo ko ñoom ñoo ko waxtaanee te man ma jàpp ka ni ci njëkk ñoom waroon nañ sax xëy na ruus société civile bi parce que tamit ñi initié. mbir mi ay kilifa lañ. Mhm. c'est-à-dire pour société civile def démarche. ñëw ñaan la njekk pour man waroon nga leen mun a war wormaal may leen ko may leen ñaari fan du wàññi dara mais boo am na nu muy tey mënoon naa ne sax xëy na lii dafa décrédibiliser la société civile mais tey mhm. ëllëg est-ce que lii dina joxati courage. <laughs> la société civile bu ñu gisatee que les acteurs politiques am nañ problème ñu sol seen dàll. dem di waxtaan loolu mhm. en fait gis nga élégance républicaine. pour man mënoon na feeñ fii nga ni d'accord. naa dindi ñaari fan. Mhm. may leen ko pour permettre les acteurs politiques les coalitions de partis politiques pour que ñu mën a euh, gën a fàggu ci liste yi mais yaa ngi fàttaliku fii bi ñu amee problème mu euh, les euh, les citoyens am problème pour récupérer seen carte. pour mën a mhm. dem voter ji bi ñuy permettre le président dafa jël saisir conseil constitutionnel. ne ko dama bëgg ñu def dérogation pour que tey ñi nga xam ne jotuñu seen carte électeur ñu may leen possibilité ñu mën a dem voter ak seeni i passeport mhm. mais loolu waxtaan la ci consensus la bi ñu fiy dem élection législative en plus de 47 listes te alors que la loi électorale ne la da ngay jël bulletin yëpp da ngay jël bulletin yëpp mhm. mais bi ñu toogee waxtaan xam ni lii mën na indi rëq-rëq ci processus bi mhm. mais dañoo waxtaan ñu jël décision saisir conseil constitutionnel ne ko nañ def dérogation ñu permettre nit ki bu duggee euh, ci mbañ ci euh, bureau d vote bi mu jël cinq listes Abdoulaye processus électoral keneen ku la wax ni demeewul noonu dalay nax. Mhm. dafa laaj ay waxtaan laaj ay diisoo ñii nga laaj leen seen xalaat ñii joxe seen xalaat gis nga consensus boobu moo lay permettre après suba ñu dem ci élection yoo xam ni dafay libre transparent du am benn contestation te nag naa la ko wax man j'ai j'ai j'ai parcouru les mentions obligatoires yi nga xam ni dañ ko prévoir à travers les articles L 149 L 173 L 174 et L 178 du code électoral mu nekk ay mentions yoo xam ni remplir ko c'est pas facile. Mhm. yaa ma gën a xam li nekk ci investiture. cest à confectionner un dossier une liste. c'est-à-dire très complexe. gis nañ élection yi. non non finalement mais après après lan la ñu nar a jural. conséquence moo on a rejeté on a rejeté telle liste on a rejeté telle liste loolu je pense que loolu mun nañ fa bañ a àgg. mais xëy na je pense que ndaje démb bi quand même bon euh, dinañ. dinañ ci waxtaan léegi benn ah, point laa xam ne. mun naa en ligne. laa xam ne mun naa ko saluer ci rencontre démb bi. Mhm. mooy le fait que on a accepté de mettre un cadre boo xam ni ça va regrouper désormais. après élection yi. voilà les acteurs politiques. que ñoom ñuy am ay discussions permanentes am un dialogue permanent boo xam ni dañ koy bëgg di doxal opposition comme pouvoir ñuy waxtaan. bañ a mhm. xaar élection jot ñu mën a waxtaanee mbir mi mais bon. Ndiaga la maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu. <laughs> di xam naa ni yooyu da ngay veillé comme gars yi ndax <laughs> sa wàll la ci njaga euh, li ma laaj Mamadou Seck sànq ñun est-ce que duñuy faral di gargariser woon ni <laughs> renforcement de démocratie bu mag lañ nekk alors que dañuy buté ci ay points yoo xamante ni mii xoolal par exemple euh, casier judiciaire point bu ñu mënul a lever la ba xëy na mën na gàllankoor participation bi nga xam ne moom la ñuy bëgg ci élection aussi mu gën a ubbeeku gën a libre gën a démocratique aussi ci yemale ñëpp est-ce que en dépit du fait que mu nekk élection anticipée ak ni mu xatee président jàpp ko ci délai bi gën a gàtt mënoon nañoo def ay points de consensus pour mu gën a yomb am déet. waaw xam nga ab Ablaye maa ngi lay nuyu di nuyu Ablaye foofu di nuyu sama sama rakk Babacar euh, tey ci une heure bi Babacar dafa wax ba pare ci seen euh, plateau moom woo ko téléphone ja yaakaar naa maa ko njëkk a woo dafa raccroché moo woo ko mm-hmm. ni ko li nga wax mun ma ci yokku dara. ma ne ko en fait ce qui s'est mooy li ma jàpp mooy la ministre de l'Intérieur a été désavoué alors que lañ ko instruit en conseil de ministre pour woote waxtaan mu am raté am na loo xam ne d'accord moo ci woon ak moom mais effectivement ak posturam euh, xëy na maladresse la def parce que ci fin bi yéenam du woon loolu mu def erreur mais sous sous la sous l'égide de euh, mu amaat waxtaan euh, maintenant waxtaan bi teñ la am maanaam loolu musul am ci histoire Sénégal mooy jour bi ñu war a déposer liste yi ministre bi woote waxtaan. tout à fait peut-être am na ñu déposé woon sax ba pare. à partir de ce moment Abdoulaye. <laughs> Mhm. lépp dañuy suspendre maanaam ñu waroon def élection yëpp dañuy suspendre mhm. di xaar lu gën na ci euh, dialogue ba surtout que dialogue ba mu am consensus donc ñëpp di xaar. alors que alors bii ba délai yi dafa ndaw seere ba nga xam ni dañ doon wax ni nan lañ koy lijjantee léegi nit ñi woote waxtaan pour ñu yaakaar léegi nag ñaari fan yi gars yi am mais nga jël nga maanaam finalement ci ñaari fan yi mayoo leen tax 24 heures léegi est ce que xam nga ni ah, Abdoulaye démb il faut le il faut le dire démb moo doon dernier délai dafa amoon une permanence au ministère de l'Intérieur ba minuit. pour que bépp coalition ak bépp entité indépendante mën a ñëw notifier en fait le nom de sa coalition mais danga ngaa woote waxtaan kon ñi waroon créer coalition ak entité indépendante ñëw ñu notifier ñenn ñu ci bëri maanaam su bu fekkee ni da waxtaan ak say euh, da ngay xaar déglu say kilifa mais décision bi dafa waroon génn à 18 wala au plus tard à 20 heures pour que nit ñi daw daal ni ah y a une permanence à minuit nañu kon daw notifier suñu coalition nga yeew ñu yeew maanaam en fait aujourd'hui xew mooy. non seulement délai bu gàtt bi ñu doon xaar nga gën koo wàññi léegi nag foofu aussi bu ñu waxante dëgg y a des de toutes parts aussi bien ci société bi bokk ñu initié négociation bi que ci ministère bi ministère bi amul woon pour ñu koy désavouer parce que moom bi ko société bi rencontré pour jouer les bons offices waroon na mën a avant muy convoqué réunion bi mu ni mu dé wax ak ak ay patron premier ministre ak président yan concession ngeen mën a accepté benn bi mooy euh, bu fekkee ni maintenant concession amul ci côté supérieur mu teel ko annoncé. Ndiaga yàgg ngaa suivre processus électoral ak ay négociations wax dëgg fi yàlla par expérience li fi mujjee ci at yi mooy ku jéggi lu ngeen déggoo rek loo ngeen xam ne am ngeen ci consensus kilifa gi dina leen ci may njekk xëy na bu ngeen amul point de consensus comme ni ko président bi fi nekk doon waxee bi fi nekkoon doon waxee bu boobaa moom mu dogal mais lu ñu xas ko déggoo mais njaga point bi nga xamante ne nii waxtaani démb yi euh, ñi féetewoo majorité présidentielle ñi féetewoo du ma wax majorité président parce que amuñu woon majorité ñi féetewoo nguur gi woon ci ndaje moomu est-ce que ndaje moomu mënoon naa jur loo xam ne mën nañ ko tuddee consensus. man ko mën ni ko waaye waaye xam nga xam nga xam nga tey protocole euh, additionnel CEDEAO bu démocratie dafa wax ni. kenn mënu modifier ci benn diir lu jiitu juróom benn weer euh, charte yi lu dul mu am euh, maanaam large consensus xam nga Mamadou Seck ngeen woo léegi maag moom fekk naa ko Lomé ma war a dem mission d'expertise euh, maanaam d'observation électorale boo xam ni ci Gora Institut xam nga la ñu waroon dem élection ñu reporté ko à une semaine parce que acteurs yi ñoo juboo daan ñu ah élection bi am na ay préalable ñu waree nañ ko pousse une semaine te loolu nee naa la protocole da ko wax ba pare ñun Sénégal euh, bépp consensus dañ koy mën a appliquer dañ koy daan di appliquer li ñu doon ko appliquer mooy si s'il y un point désaccord ñu ni dañ ko soumettre à l'arbitrage du que tey Sénégal euh, élection anticipée bu mel nii moo ngi doog a am keroog maa ngi fàttali ni euh, bi amoon en fait en 2001 ñëpp xamoon nañu dañuy dem ci ay élection li ñu mënul accepter nag mooy euh, élection mbirum démocratie la maanaam règle yi dañ ci war a juboo euh, et souvent damay rappeler ni mbir mi ñaar la dafa am loo xam ni sañ-sañu président la boo ko article 87 may mooy opposition bi kañ lay gis wut ak ci délai bi ko constitution bi may mais lu lu mën a am dafa am aussi loo xam ni constitution bi da ko may aussi euh, maanaam entité politique et citoyen ñu war a dem élection maanaam mënoo ñëw di leen bett nga bett leen ba pare woote waxtaan ndekete waxtaan bi li li ci feeñ mooy da ñëw pour gën leen maanaam galka alors ko barki démb lañu fi xeex. Ndiaga Ndiaga bu fekkee ni ci xam nga loi neex na droit neex na mais bu fekkee ni. Euh, leneen li dañ ko wékk ci njekk maanaam mënoon na may njekk wala mënoon na rafetal bu rafetalul wàccul yoon léegi bi nga xam ne conseil constitutionnel mu ngi koy jox avis di ko wax ni mën nga tas à partir du 12 mënoo tas avant le 12 noonu la ko waxee yokk ci it ne euh, gannaaw délai yi nga xamante ni dañu war a organiser dana tax ñu faase maanaam délai parrainage xam nga loolu waxaale na ko ci kii boobu loolu danga koy dàq kon wala. parce que bu fekkee nii danga ne ni ko CEDEAO waxee ci juróom benn weer mënatuñoo modifier li nga xam ne mooy loi elec yi nga ponk yi nga xam moo nekk ci loi bi loolu xam nga nekku ci te conseil pour pourtant daganal na ko ñu dem ci élection te duñu def parrainage te pourtant parrainage dafa bokk ci point wu loi yi yi nga xam ne ci la ñuy demee élection léegi nu ñuy doxaleek loolu maanaam foofu modifiewuñu foofu li conseil constitutionnel wax la wax au nom de la président en vertu de l'article 87 de la constitution am na sañ-sañ dissoudre assemblée nationale bu bu ñu defee euh, législative bi amee ñaari at léegi foofu président moo amoon lu ko leerul woon xamul woon kañ la kañ la kañ lay ko koy natt parce que da doon am ñu doon wax naan rép date bi mooy jour élection bi ñii naan date repère bi mooy jour proclamation alors que pourtant man li ma jàppoon te loolu conseil constitutionnel wax mooy repère bi mooy que bi ñu installé assemblée mooy mooy mooy septembre léegi yow nga posé conseil constitutionnel deuxième question bi deuxième question bi man laa d'accord ak ñoom mooy quelle est la date butoir pour organiser les élections alors que c'est une question boo xam ne constitution bi da ko réglé mooy tu as entre quatre-vingts euh, euh, jours au minimum et quatre-vingts jours au maximum alors que ci diggante bi société civile lu mat weer ak nangam ak Babacar Fall ak ñoom mu Ndiaye Cissé ak professeur Babacar dañoo toog ñu réunion def conférence de presse nit ñi am na ay li euh, maanaam vide juridique ci code électoral bi yoo xam ni bu ñu waree dem élection anticipée dañ ko war jën lijjanti maanaam muy nguur gi ak opposition bi kenn faale wuñu léegi nag tey li xew xew maintenant nag ki nga xam ne moo nekk président bi muy terminer discours am moom lu mu wax que le yow keroog man li ma jàppoon le douze bi muy annoncé dissolution bi pour man si la waroon wax instruction ministère donte gisul nga que yéen waxtaan leen même bu dee ñaari waxtu la nga déglu en fait les acteurs avant ngay jël décret alors que décret boo xam ne danga nga ko jël euh, toog quatre jours doo ko publier en fait alors que mënu nga saisir en fait les avis mais ñëpp xam nañ ni yow hypothèse basse nga jël et man je suis pas contre cette hypothèse basse parce que je l'ai même prôné parce que j'ai dit que y a pour voter le budget j'avais même man sam bopp il y a lu ginnaaw ma ni nañu jël hypothèse basse pour que l'élection puisse avoir en fait à mi-novembre afin que en mode fast track ñu assemblée bi début décembre pour ñu mën a en fait voter le budget alors que j'ai rappelé la dernière fois comme l'avait cité effectivement Maître Doudou il y en vertu de la 68 de la Constitution on peut effectivement s'il a un retard budget bi dem ba janvier waaye nag compétition électorale la ñu nekk il faut maintenant mu nekk un jeu loyal man je me suis toujours battu pour ça bi nga xam ni ñoom ñoom ñëpp lañ doon wax ni Ndiaga Sylla euh, Diomaye la faral ak Sonko fekk man ay principe laa doon tey ñoo may attaqué mais loolu c'est pas un problème cest à que man li ma li ma jàpp mooy li ñu doon xeex bari ci démb euh, tey ñoom ñu ñëw fi dañu war a respecter un jeu une compétition loyale tey aujourd'hui li xew mooy dañu violer en fait la liberté de candidature boo xam ni constitution moo ko garantir en fait aux aux partis politiques aux coalitions et aux entités indépendantes. jërëjëf <laughs> merci beaucoup. merci beaucoup mel ni kii point yi nga xam ne war nañu ko lever pour di am élection yi dal di ci duggee dal aussi bëri na <laughs> gis nga ko yi ñu war a waxtaan yi bëri na alors euh, ñu dellu ci commission ba pas avec Habib Faye mais ak représentant de candidat euh, représentant coalition Maguette Sène bi nga xam ne ni defar na list yónni fa ndawam dafa mel ni nag dañ koo wàññi ndax dañoo ne dafa fàtte dossier de dépôt ba ak photo Maguette seen ci liste yi waaye nag moom nee na nee na demeewul noonu ñu déglu ko moom aadama Diallo ndax waxtaan na ak Habib Faye ñu déglu Adama Diallo. ministre waaw xëy na dafa dafa am rek journaliste bu jege woon suñu oto ñuy wax ci suñu biir di génnee dossier yi. bi ñuy génnee dossiers yi nag euh, may laaj am dossiers yi nga xamante ni génnul woon waaye nag moom avant mu fay jógee sax daanaka gis na ne jox nañ ñu dossier bi ñu dem dugal ko ndax ni ñu ko aménagé woon ci biir oto bi ñu doon transporter bagage yi loolu rek la woon waaye bi ñu duggee fii moom alhamdulilah zéro faute liste bi déposé nañ ko jox nañu suñu récépissé de ko fii ak euh, ajjuma bii di ñëw waa direction générale des élections dinañ saytu dossier bi suñ ci gisee ay jafe-jafe dinañ woo mandataire bi mu ñëw xool ko buñ ci gisul man ay jafe-jafe incha allahu rabbi bu nu publier liste yi le 7 suñu tur dina ci génn ñu jublu ci nommer suñuy membre de bureau de vote tànn suñuy mandataire dem ci campagne électorale bi fas yéene am ay député yu bëri. merci jërëjëf euh, représentant coalition Maguette Sène def naa ni comme waxtaan la ak beneen journaliste bu mu séqoon nañu ko bàyyee noonu ñu déglu Cheikh Tidiane Youm mandataire euh, ànd sàmm suñu kàddu moom it demoon na foofu ca DGE ñu déglu ko moom Cheikh Tidiane Youm. boo xam ne nii euh, li nit ñi doon wax naan dañu nekk ci ay jafe-jafe bon après lépp solo du luy nit ñi di wax lépp solo mooy li nga xam te nga wax ko def. Euh, donc bloc bi nu ñu ko constitué des le départ bloc boobu moo nekk ba léegi. Euh, on travaille ensemble di liggéey guddi ak bëccëg pour euh, mën a euh, ànd dem ci élection yi. non négociation yi c'est c'est tout à fait normal puisque comme organisation politique yëpp mën na bañu yomb mais ku ci nekk xam nga li nga mën donc loolu moo tax mën na bañu jafe. Euh, démb la ñu waroon déposé effectivement mais xam nga ne organisation politique yi ñu nekk en coalition du yomb toujours ñu déposé ci date bi nga xam ne nii moom lañ di wax et puis le tirage bi c'est une question d'organisation mais c'était le procès verbal de de de, de la, la rencontre réunion. de la et donc loolu moo induire erreur ñu bëri ñu yaakaar ni euh, en réalité yokk nañ ko alors que c'était juste euh, un procès verbal qui reprenait consensus bi nga xam ne nii amoon na waaw xam nga intercoalition moom dafa nekk loo xam ne nii lu lu am solo la Euh, Yewwi Askan Wi moo ko fi andi depuis les élections législatives de 2022 euh, donc effectivement mu nekk euh, lu am solo loo xam ne nii ren it defaat nañ ko defaat nañ ko waaye bu ñu demee ba liste yi génn dinañ xam ñi nga xam ni lañ ko defal mais lu ma mën a wax te confirmer leen ko moo di intercoalition boobu def nañ ko surtout le territoire national et au niveau de la diaspora amul département boo xam ne ni tëj nañ tëb nañ ko donc li ci ëpp solo rek mooy ñu ànd def bloc Euh, pour mën a euh, instaurer benn équilibre voire même jël majorité absolue bi nga xam ne ni moo am nekk assemblée nationale pour rek euh, préserver la démocratie loolu am solo la ci ci réew. ah non di ngeen ko gis le tête de liste bi bientôt d'ici deux trois jours di ngeen xam kan tête de liste ça une surprise. Cheikh Tidiane Youm mandataire ànd sàmm suñu suñu kàddu ñoom ñu ngi woon ci ndaje mi euh, évidemment ñu ngi woon ci ndaje bi nga xamante ni ñu ko woote woon ñëwoon nañu ndax xam nga représentant pur bi sax yaa ngi fàttaliku jël na fa kàddu mm-hmm. Mm-hmm. ba ni moom vraiment problème bi mu gën a jokkonteel mooy affaire casier judiciaire xam nga affaire casier judiciaire yi mais casier yi aussi euh, euh, nañu waxante enfin je pose la question à vous xam naa du yéen ay mm-hmm. li si est-ce que tribunaux yi parce que fa la ñu wutee casier judiciaire mm-hmm. vraiment pour ñu yombal acteurs yi est-ce que gis est-ce que dégg parce que dégguñu acteur bu ne dem naa mënuma koo am cest à nit ñi dañuy taxaw ci njort ni dana yéex wala dana kii euh, comment on apprécier ça est-ce que mesure boobu mënoon naa atténuer quand difficulté bi nga am ci euh, garde des mm-hmm. dafa ne tijji nañ ay permanence mm-hmm. donc sur pratiquement fépp foo xam ne war nañ fa wutee mën a casier judiciaire mais xam casier judiciaire aussi Ablaye du ki bëgg a nekk député rek mu ngi wut yow ak man ak n'importe quel citoyen uh-huh. day am soxla boo xam ne dañ koy laaj casier judiciaire mu dem wuti ko donc tey boo demee ci tribunaux yi boo ci mënti dem rek day am benn rëcc boo xam ne ñi nga xam ne uh-huh. dañu bëgg wut casier judiciaire pour defar seen liste ak citoyen lambda bi nga xam ne day ñëw parce que ci am soxla c'est parce que am na plateforme bu bon yooyu aussi je pense que peut-être à l'avenir ñu war a xalaat la comme supposons euh, Ablaye yow fi nga juddoo soriwul kazalika ak sama waa ji kaw ga laa jógee waaw mais waxin la rek mais ah, xoolal supposons tey ku dem juddoo ji foo xam ne dafa sori mhm. est-ce que mënuñu dem ëllëg béegi ci ay jéego yoo xam ne casier judiciaire fii mu nekk fii tey war na mën a toog fii war ko fee mën am ndax am adduna day dox day tey war nga mën fii tey toog fii Dakar nga juddoo Kédougou wala nga juddoo Bakel wala faneen mais fii rak-tak après ñu mën la envoyé mhm. affaire bi loolu aussi euh, avancé dina ko dina ko dina ko jur cam réew la yow xam nga jar yéen borom ñaari nationalité yi da ngeen di toog fii di wut ay acte de aussi. loolu ko euh, jiiñ noonu naa aussi saluer euh, <laughs> cest dire décision bi nga xam ni le ministre de la justice Ousmane Diagne daf ko jël pour mm. ñu def ay permanence effectivement ñun on a vérifié te permanence yi ñoo ngi fonctionner. très mm. très sincèrement même tey dimanche bi. Euh, tribunaux yi boo fa demee nga gis que ni permanence yooyu c'est c'est opérationnel donc ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi mënoon na atténuer voilà voilà mais problème bi mooy cest dire temps bi moo ndaw Mm-hmm. c'est-à-dire que tey ki nga xam ni euh, yaa ngi Dakar war a dem ba Fatick wut fa casier judiciaire loolu ça en fait dafay jël temps c'est ça le problème cest que c'est pas parce que tey. dafay mais casier judiciaire aussi il faut le dire ah. il faut je pense que c'est bon aussi ñu préciser soxla présence su nit ki quand pour am ko. waaw ku ko mën a yóbbante nga ko oh, yóbbante. mais xam nga nag bon parfois yóbbante bi. <laughs> waaw pour wala doo am sax koo yónni mën na nekk ah. na bañ a am ku yónni aussi moo tax xam naa ni bu ñu fi jógee également il va falloir que ñu réfléchir. sur ça parce que man li bu ñu dem ci élection euh, législative tu as plus de 1000 candidats tey tu as mille supposons mille casiers mhm. judiciaires alors que cent soixante cinq rek déjà que boo imaginer dix huit listes voilà 18 donc liste bu nekk am 165 am donc donc man man je war nañ mën a réfléchir xool naa naka la ñuy def ba différer ko soit ñi nga xam ni. Mhm. dañu bëgg a nekk candidat ñu defal leen ñu signaler leen benn déclaration sur l'honneur après bu ñu demee élection bu ñu retenir les 165 députés ñu laaj leen seen casier judiciaire. Ah, donc yooyu ah. c'est des c'est des possibilités. mais aussi Babacar nañu waxante dëgg enjeu financier ah, tey am na ci ku ma waxtaanal mu ni ma ñoom ñu fay nañ plus de 80 millions yoo xam ni voilà donc euh, casier également joxuñu la ko gratuitement. bien sûr loolu aussi bon beneen beneen beneen kii la beneen aspect bi mooy ñun fi ñu toll nii en 2024 war nañu mën a dématérialiser. obtention au casier judiciaire c'est-à-dire que man tey waratuma soxla nekk dakaar soxla mhm. casier judiciaire may jël oto di dem ba Fatick wala di dem ba Thiès fi ma toog. Mhm. au moins je pense que war naa mën a. war naa mën a euh, am am am am en fait am casier judiciaire. donc loolu aussi mooy difficulté yi nga xam ne en réalité. moom la euh, parti politique ak coalition de parti politique yi di euh, di daj te ma gëm ni Abdoulaye ma waxaat ko gis nga c'est vrai y la loi. Mhm. code électoral bi moom fi ñun ñëpp d'accord nañ code électoral bi moo tënk ay délais mais dañu encore une fois de plus dañu nekk ci ay élections anticipées le président de la république également jël décret fixé ay dates loolu ci prérogative am la ñu nangul ko ko accepter ko ko c'est tout à fait légal amuñu lenn lu ñu ci wax mais dañu ni bu ñu nekkee ci ay difficultés nekk ci ay jafe-jafe ñu gis que nii am na ay parti politique ay coalition de parti politiques yoo xam ni dañu am difficulté pour mën a am ay documents mhm. ñu jàpp ñu gis que ni y la le protocole le protocole additionnel de la CEDEAO bu wax que ni s'il y a après six mois s'il y a un large consensus mhm. on peut avoir mën nañu jël ay ay ay ay décret wala ñu jël ay mesures yoo xam ne dinañ mën a permettre les acteurs politiques ñu mën a doxal parce que ce n'est pas pour rien que ñu voté wala boog le le protocole additionnel de la CEDEAO jël mesures parce que xam nañ que ni loi dëgg la moo féete kaw mais mun nañ dem nekk ci situation boo xam ni cas de force majeure la mën nañ dem ci situation yoo xam ni kenn jotu ko woon xalaat parce que li xew nii xalaatuñ ko woon. que voilà on allait euh, vers la dissolution de l'Assemblée nationale. président également man jàppoon naa ni même bu ñuy euh, même buy fixer datu élection bi dafay jël le maximum dafay tabler sur les 90 jours. mais moom aussi yoon may na ko mu xool entre 60 jours wala 90 jours donc il a opté pour le minimum. là également dañ ko koy nangul mais boo opté le minimum je pense que waroon nañu mën a fexe wut ay hmm. mécanismes te mécanisme yooyu mooy le consensus waxtaan pour ko au moins ñu mën a wut ay facilité pour permettre ko ñi nga xam tey ñoo nekk xam xam nga sax Ablaye li may hmm. dëggale loolu gis nga hmm. ci histoire au Sénégal conquête démocratique yëpp lutte ak waxtaan ñoo koy indi mu jur ay consensus ndax xam nga booy xool tey euh, man toujours bu ñu jëlee ministre de l' intérieur. Mhm. général rek j'applaudis deux mais parce que loolu euh, li ko indi ay conquête démocratique parce que jamono bi nga xamee ne Diouf nekk na fii mais jël général Lamine Cissé général Lamine Cissé bi mu ñëwee ñëpp dañu tàccu toute la classe politique. Mhm. dañ ci ànd mu organiser élection Diouf perte. en mhm. en en en en deux mille. Abdoulaye Wade Mamadou Niang général nekk ministre de l' intérieur. xam nga souvent li gars di fàtte Macky am na général dafa yàggul rek Pathé Seck nekk na fi ministre de l'intérieur mhm. donc tey bu ñu demee ba nga xam ne tey Bassirou Diomaye Faye président de la République falu na mhm. indi un ministre de l'intérieur bu nga xam ne tey day am préjugé favorable xam nga souvent euh, les hommes de tenue mmh. comme les magistrats mhm. euh, c'est au commis de l'état là souvent dañu am préjugé favorable euh, donc bi mu indee tey euh, Jean Baptiste waaye bu ñu xasee ba mu lu leen gàkkal nag crispation itam foofu lay gën a mettee mais xam nga crispation yëpp xam yi amoon ci ONEL général Amadou Abdoulaye Dieng. Mm. ba ni mu mujjee mu mujj sax. waaw mais xam nga en fait mm-hmm. boobu dem na bi mu paree carrière militaire am mu bëgg dugg ci politique bi mu defee mouvement. de soutien loolu amoon na fi. oui parce que il a un certain oui, moment oui dañ la table. ne kii nekkatul ci mm-hmm. neutralité donc am na ci loo xam ne mënatul nekk arbitre. Mm-hmm. parce que soit da nekk militaire. soit nga bañ ko nekk mais tey boo nekkee militaire tey sa carrière jeex bu duggee ci jeu politique bi ëllëg am na loo xam ne boo ko bëggaa tey def gars yi dañuy bañ mhm. bon Jean Baptiste Tine bi ñu ne ministre l'intérieur ñëpp dañ ci am préjugé favorable mhm. te gis nga première réunion bi amoon na crispation parce que jàppante naa Omar Sarr mais gis nga bii atmosphère détendue mhm. dafa dugg sax après yaayu standing ovation yooyu après mu jox parole bi Omar Sarr Omar Sarr que xam nga acteur politique yi ak acteur société civile yi ñu bokk mm. gis-gis mënuñu bokk agenda mënuñu bokk tempéra xam nga man supposons mm. rien ne m'ébranle parce que chacun est dans son gis nga les acteurs politiques mm. seront toujours dans le rôle ils feront toujours de la politique. mais ñu jéem a waaxu c'est pourquoi les acteurs de la société civile waaw a waaxu bi ginnaaw élection bi parce que annoncé ngeen ni ko yéen ñaar ñëpp. point bi nga xamante ni ñee ngeen c'est important ci ne bu ñu jógee ci lii. cadre permanent waaw cadre permanent mais parce bay wéy na mbuus ba pare parce que élection bi c'était tellement important ci xëccoo assemblée nationale majorité yooyu. non mais ñi lan la ñuy waxtaanee parce que aussi parce que aussi enjeu bi mooy lu ñu mën di waxtaanee bu ñuy modifier loi la ñuy modifier te assemblée nationale. na yeneen élection parce que euh, Ablaye. xam mhm. nga élection bi ëpp solo ci Sénégal bi Sénégal yi gën a foog mu élection présidentielle. Mhm. xam nga te élection législative yi mën naa juum ci samay analyse mais jàpp naa ne. du am sax peut-être xëy na ferveur bi nga xam ne nit yaakaar nañ ko ci. ndax contexte aussi nit ñi am na ci loo xam ne wax dëgg yàlla bala nga naan naan nekk fa. Mhm. parce que jamono bi dafa nekk ci benn contexte bu difficile. Mhm. d'abord inondation yi xoolal tey bu fekkee ne bu ñuy dem sax ci élection yi la le 17 novembre njortaan boobu xëy na nawet bi dina jeex. Mhm. mais xoolal tey inondation yi ci biir réew yi ni mu mel. am na ci ay gox yoo xam ne supposons tey xoolal ku leen bëgg a demloo. voté jëloo leen yàlla xam ndax bu nawet bi jeexee ndax sax condition yu ñu mën a déplacé wu pour mën a voté dina nekk parce que Sénégal 46 département la yemul rek fii ci fii fii ci Dakar. boo demee fii rek tey Touba soriwul. Mhm. deuxième ville du Sénégal en terme de démographie. Mhm. xoolal ndox mi foofu ni ni ni ni mu mel. Mhm. donc gis nga am na contexte yoo xam ne tey bu dee élection présidentielle. day am benn ferveur ndax lii amoon. muy et puis ak bi mooy bi euh, ñu koy dëgmal. ñëpp di xalaat la l'après de avril cas inédit solution inédite suñu borom yegg si ak ay kiyam beaucoup de gens se disaient que ni mais bu demee 2 avril moo doon deuxième tour nan lay demee yàlla ne non benn tour lay nekk Bassirou Diomaye Faye ci lay ci lay faloo donc gis nga cas inédit yooyu moo tax ma naan leen toujours les ressorts du Sénégal sont très solides ressort institutionnel booy xool dialogue gi en les institutions qui renforcent la démocratie Ablaye da da da nga koy loué. Mm-hmm. ndax xam nga boo xoolee bi ñuy ma élection présidentielle bi ñëpp a jaaxle mais le conseil constitutionnel. qui a mm-hmm. régulé. a joué un rôle majeur ba tax na tey li ñu xalaatoon yëpp tey amul ndax bu fekkoon ne tey deuxième tour dafa am tey. Mm-hmm. Macky Sall mandaam jeex na kan mooy nekk président la république. Mm-hmm. premier ministre mm-hmm. président de l'Assemblée nationale président conseil constitutionnel benn général bu jël am conseil kenn xamuloon ban cas moo mm-hmm. yàlla ne loolu du nekk donc tey bu ñu dëgmal élection législative gis nga démocratie toujours la perfection n'est pas de ce monde toujours day am ay failles ay manque-manque yoo xam ne gis nga élection yi ci la acteurs yi politique yi di xoolal langaamu réunion ba yaa ngi fa maa nga fa j'avais bien les analyses et les propositions de Talla Sylla day simplifier affaire yi. parce que am na benn maturité yàgg na ci jeu bi. Talla sama rakk la il a été un élève terrible au lycée Malick Sy. Hmm. bi muy xeex ak li mu daj aura bu fi nit am rek Talla Sylla amoon na ko yàgg na. mais xoolal day indi proposition yu très simple yoo xam ne day. xoolal indi solution boo xam ne buñ ci jaaroo day yomb. mais autant daf koy def. du ma hmm. tudd tur autant dañ gis ñeneen ñoo xam dañuy jóg. Hmm. complexifier affaire bi. désaccord am après consensus d'homme on est obligé de remettre mais réew mi comme il l'a rappelé 2014 def nañ fi élection locale boo xam ne nangoon nañ un certain nombre de choses pourtant nekkul ci code électoral bi consensus su ko indi donc gis nga acteurs politiques yi Ablaye mm-hmm. ils ont leur schéma personnel waxtuñ bëggee yombal affaire yi mm-hmm. yombal ko buñ ko bëggul a yombal dañ koy dëgëral parce que toujours bi yéen bëggoo leen a nangu nii ndaje mi ngeen demoon mm-hmm. wax dëgg fa yàlla bu ngeen ko nangoo moo gënoon simple ngeen xam ni ndaje mi parce que je m'étonne ngeen que Babacar ak ñi féetewoo nguur gi nekkuñu ci loolu bu ngeen amoon consensus di ngeen leen tooñ kam afin dinañ ndaje ma dinañ leen tooñ parce que nekkuñu fa kenn mënul wax ci seen mais xam nga dès lors que réunion bu njëkk ba hmm. jafe-jafe bi mi ngi del commencé ci intervention Omar Sarr ministre de l'intérieur riposté donc c'était une partie en fait de la classe politique particulièrement l'opposition hmm. ak l'organisateur des élections le ministre de l'intérieur parce que ce qu'on le ministre de l'intérieur wala gis nga li ma doon def démb nii. ànd ceeg sama mag yooyu. ànd ceeg su ma ay rakk yu mel ni ay Babacar. su suba bu noonu këtt na jonn ma tàmbaliwaat ko parce que c' est dans mon ADN que moi je pense que ni ce pays là. wallaay je l' ai dit et gis nga ressouder cette nation. pacifier ce pays. renforcer l' état de droit un état démocratique. man bi may créer le Sénégal à la croisée des s 2 mm. loolu laa jóg lancé ko. ay góor ñëw toppandoo man tey dans le lot des ténors de la presse des ténors de l'université de Dakar parce que j'ai dit li ma gis nii ñuy dem ci réew mi gis nga cette nation là bu ñu ko préserver on va vers de sérieux problèmes mm. parce que demoon nañ ba gis ay velléité ay identitaire Ablaye mm. fan nga dëkk mm. xoolal foofu ni mu cosmopolité lépp a fa tase xeet yëpp a nga fa ba tax na il faut que nit ñi aussi Euh, li ñuy wax s'inspirer de différence pour mieux apprécier les similitudes gis nga góor bu nekk. da ngay téye ci dara bàyyi kaneen noonu la bàyyi leneen noonu la ñuy war a mën a continuer di tabax suñu réew di tabax suñu réew ba tax na man je ne désespère pas. gis nga soo bu amoontoon <laughs> beneen blocage. Alioune Tine je lui rends mm-hmm. ak défaut boo mën a am. de ah, nit benn matulan ah. qualité ak défaut la mais xoolal à son âge il pouvait aller se reposer de. mais il a le combat la médiation. Mm. beaucoup de choses dans son ADN. donc tey su ko neexoon mu dem noppalu ji Babacar Gueye professeur agrégé de droit constitutionnel il est à la retraite. Hmm. su ko neexoon tey mu ne réew mi xoolal man noppalu naa mais il faut comprendre que ku ci nekk ak sa mission. Hmm. am na ñoo xam ne ils ont décidé de faire la politique. Hmm. de la société civile. moi durant toute ma carrière à la RTS j'ai fait la télévision je suis un acteur de l'espace public. mais dama jàpp ne Sénégal li jaral na ma lépp ba je ne désespère jamais c'est-à-dire suba bu amaatoon benn différence aussi mm. xoolal wala divergence Ablaye dinaa jógaat parce que gëm nañ ne loolu la ñu war a def ñu dellu DG très rapidement euh, on va parce que coalition yaa ngi dugg a ko génn euh, Chimère Ndiaye maa ngi ko liggéeyal Sénégal avec Habib Faye ñu déglu Chimère Ndiaye waaye dañuy d'abord euh, sant yàlla bu baax donc gërëm yàlla bu baax sant ko bi nga xamee ne yàlla may nañu tey ñu ñëw indi déposer sa même suñuy liste vraiment ndax liggéey bi liggéey bi yombul woon ndax ñun ñooy suñu coalition mooy manque liggéeyal Sénégal bi nga xam ni Souleymane Ndiaye mooy suñu njiit moom moo ci moo ci nekk donc liggéey bi yombul woon wax dëgg yàlla waaye quand même yàlla suturaal nañu ba liggéey nañu si maanaam si lépp lu ñu si war liggéey avec suñuy ay suñu ay militants suñu ay euh, nit ñëpp suñu coalition ñëpp liggéey si takku si ba dëgër ba yàlla def tey suutura ba ñu mën a indi suñu ay dossier ba déposé ba jot suñu récépissé de dépôt waaw comme nu ko ñëpp constaté hein vraiment c' très difficile casier judiciaire pour nga am ko coow la woon am donc mu nekkoon ay mbir yu parce que délai bi dafa gàttoon mais bon alhamdulilah ñun daal coalition Manko Sénégal ñun ñi ngi sant yàlla bu baax di gërëm ba ñu yàlla defaree sutura tey ba nu ñëwee ba indi suñu ay ni alhamdulilah avec la commission ñu yaakaar am yàqin ne suñu Euh, indi nañ ko liggéey nañ ko nu ñu ko war a liggéey ndax yombul def nañu ay fan du ñu nelaw nekk ci di liggéey ànd ak euh, vraiment le président de la coalition di liggéey di liggéey ba yàlla sottal tey ñu ñëw booy jot suñu ay récépissé merci beaucoup euh, Chimère Ndiaye coalition Manko liggéeyal Sénégal euh, je pense que Habib xëy na yi ñu ngi ci ba léegi wala passé nañu ko mm. dans tous les cas balaa ñuy tëj minuit on va faire le gong aussi de minuit delluwaat ci Habib Faye Babacar au-delà xam nañ ni consensus amul ci reporter délai bi ci point au casier judiciaire yi mm. évidemment dépôt de liste ça ne veut pas dire aussi liste bu ñu validé loolu sax la njëkk a xam ah, déposer tey liste mm. tekkiwul ni liste ba baax na parce que. tout à fait DG moom day compter pièces ya nga xam ne indi nga ko. moom du mm. juge ndax pièce ba baax na am mm. baaxul. Mm-hmm. wax dëgg fa yàlla du cëram. Mm-hmm. non en fait pour man le plus difficile sax mooy mooy le contrôle juridique. Mm-hmm. parce que xam nga dafa am lu ñuy wax la réception des dossiers ak euh, wala boog la réception matérielle euh, des listes. bu ñu jugee ci loolu après bon il y a ce qu'on appelle euh, le contrôle juridique. ci la xool effectivement est-ce que. respecté nañ euh, toutes les mentions obligatoires yi nga xam ni dañ ko prévoir euh, sur les articles L149 du code électoral et suivant parce que déjà une liste qui est incomplète Abdoulaye mhm. loolu dañ koy dañ koy dañ koy rejeté liste boo xam ne lim bi matul mention yi également ñoom dinañ xool ndax les mentions obligatoires li ci mel ni ay parité hommes et femmes ndax yooyu respecté nañ ko ndax également euh, les pièces yi nga xam ni ñoo war a accompagner la liste est-ce que toutes les pièces respecté nañ ko lu ci mel ni tey ay euh, bordereau quittance ainsi de suite donc lii ñëw pour man jàpp naa kat yi moom mooy li gën a compliqué parce que xëy na ñun on a eu la chance dem def benn genre euh, gëstu dem ci ay parce que ñun yii bu amee dañ doon dem ci QG yi du xool effectivement nit ñi ci yenn anam la ñuy liggéeyee et foofu Abdoulaye ci ngay gis que ni yenn parti yu ndaw yi ñi nga xam ne amuñu doole amuñu expérience ñooñu ñooy gën a am difficulté parce que xam nga tey boo jëlee yenn coalition yu mag yi yenn yi nga xam ne bëgguma bon je vais pas citer mais dañuy mm-hmm. am benn expérience boo xam ne dañ ko capitaliser donc mm-hmm. ñooñu ils pas ces ces ces en fait ces difficultés mais ñi nga xam ni c'est des bon du ma ni parti yu ah, ndaw mais on s'est vu quand même législative tout le monde s'est ramassé en grande comme petite coalition gis nga li mujjee demi liste quart de liste non c'est-à-dire suppléant non après ça va être très compliqué c'était un peu particulier non non tellement de galgal que finalement tout le monde s'est dans le piège moo tax gis nga euh, boo bëggee dem ci élection yoo xam ne dafay libre transparente inclusive mhm. Abdoulaye foog ngay def benn il faut nga def parfois preuve de souplesse. mais si on capitalise Babacar excuse-moi tu finis. Mm. mais mm si on capitalise ci élection bi buñ ci génnee euh, comment on fait avec le parrainage parce que bu buñ defee sans parrainage mu jàll. après xëy na non non non bi. xëy na xëy na dañ naan mais jaratu ko. parce que évidemment ah, le système s'est autorégulé. gis nga nga Abdoulaye non non loo expérience la déjà parrainage bi Ndiaga Sylla mu ngi koy wax Ndiaga Sylla que je salue de passage c'est-à-dire parrainage bi conseil constitutionnel moom moo décidé. voilà parce que délai yii euh, délai parrainage bi lu muy laaj ak du mën a méngoo mhm. ak conseil constitutionnel ba tax euh, du mën du mën a méngoo ak li constitution bi wax parce que boo xoolee conseil constitutionnel ci décision bi dañuy bépp délai boo xam ne dafa supérieur à 90 jours dafa mhm. incompatible mhm. ak les disposition euh, de la constitution donc mu dindi ko maintenant tey bu ñu demee ci ay élections laaj bi nga laaj dafa am solo bu ñu demee ci ay élections ñu gis que ni on a eu des yoo xam ni ça va macha allah sans le parrainage mm -hmm. mais mën nañ fa jaare réfléchir ne mais mhm. pourquoi ne pas citer euh, faire sauter le mhm. parrainage mhm. mais yooyu yëpp c'est des c'est des c'est des c'est des c'est des c'est des parce que ñoo ngi tenter une élection sans sans un filtre le parrainage mais si on arrive à réussir ça et que ñu am ay listes yoo xam ne raisonnable na ñu gis que ni élection bi jaar na yoon mais je pense que à partir de ce moment mën nañu réfléchir xool est-ce que duñu mën a tëbal li nga xam te mooy parrainage mais loolu lépp encore une fois de plus dafay delluwaat ci li nga xam te mooy consensus bi mm-hmm. te gis nga ma ñëwaat ci sànq yaa ngi wax le cadre permanent bi nga xam ni dañ ko teg dañ ko dañ ko fas yéene teg mm-hmm. pour que les acteurs politiques di ci waxtaan ñuy sottante xalaat pour que voilà yenn yenn divergence yi bañ a amati mm-hmm. mais pour man cadre boobu li ko doon gën a faciliter gis nga bu ñu acté woon le consensus là le consensus qu'on a eu le vingt 28 dans la salle. Mhm. bu ñu ko acté woon Abdoulaye ñu nangu que ni maanaam ñu accepter les partis politiques les coalitions de partis politiques ñi nekkoon ci salle bi. Mhm. consensus et puis c'était le seul consensus qu'on a mais bu ko acté woon président wala l'exécutif ne d'accord ñaari fan yi ngeen ma doon ñaan may naa leen ko man jàpp naa ni doonoon na gën a yombal doonoon na gën a mën a euh, booster encourager ku jéggi. à ce que bu ñu wooteetee ñu dem. bien sûr loolu je pense que. mais gis nga Ablaye ma yokk ci rek benn mbir bu ndaw. Mhm. Euh, gis nga nit da ngay wax rek ngir yàlla te di ah suñu borom dëgg la bëgg man damay wax ni bi ñu nekkee ñun juróom ak ministre de l'intérieur ak stafam dama dégg déggati ci biir waxtaan bi ci biiroom mu ne élection transparente élection apaisée. il l'a rappelé il l'a répété mooy sama bëgg-bëgg moom laa bëgg kilifa yi aussi loolu lañu bëgg il l'a souvent répété après daal ne nag pour ñu yegg ci loolu. Mhm. il fait preuve de grande ouverture mhm. il est prêt vraiment à écouter tout le monde à s'entendre tout le monde organiser les élections de la façon la plus propre. Mmh. donc aussi loolu baax na quels que puissent les enjeux parce que bu ñu amee koo xam ne taxaw na ci posture boobu. dañ koy sant yàlla ndax xam nga des fois boo mi ministre de l'intérieur purement partisan xam nga loolu doo ko mën a xaar ci moom. ndax il veut il fera tout pour faire gagner son camp. mais xam nga koo xam ne dañu nekk juróom ci bureau mu teg ak directeur de cabinet ak secrétaire général le directeur il dit élection apaisée élection transparente délai yi tuuti na c'est vrai élection anticipée la mais ñaar yi moom. du ma ci transiger mais Abdoulaye sa boo téye moom danaan la damay liggéey pour élection. waaw d' accord libre transparente et démocratique ah bon. mais xam nga casquette bi aussi dañuy préjugé. foofu xam nga quand tu prends ministre. Mhm. de l' intérieur un général. xam nga général ba mu préjugé favorable un citoyen civil comment mënu ko am ndax bokk nga ci benn camp xam nga tey en vérité. Mhm. jeune ne je ne l'opprobre sur personne je ne louange sur personne à la sortie du gouvernement. dont le premier ministre Ousmane Sonko da ci am ay profil yoo xam ne dañu rassurer l'opinion général Tine Birame Diop le ministre for forces armées Ousmane Diagne ministre de la justice je cite les trois là du ma mais yooyu c'était des profils yoo xam ne dañu génn rek gars yi Sénégal ne ah dañ leen di adoubé parce que y a un consensus autour de le de le de leur nom mhm. te dañu yegg ci benn euh, parcours bu nga xam ne quelqu'un qui est pratiquement au crépuscule de sa carrière romb 60 ans jëm 70 ans xam nga ko dara da ko tóorul jariñ mu dugg ci yenn forme compromission yoo xam ne day entaché carrière am mm-hmm. c'est pourquoi moo tax ma ne gis nga dans pays là c'est vrai que c'est un pays souvent très complexe mais wallaay yaa de quoi espérer des lendemains enchanteurs. Mm-hmm. c'est vrai que waxtu ñu jub élection yi du ñàkk. <laughs> parce que c'est le propre du jeu politique. Mm-hmm. du landerneau politique gars yi ils sont dans leur ça va se révéler dans les jours dans les heures qui viennent j'ai l'information hmm. ñoo xam ne bàyyi nañu parce que investir la jël et pas n'importe qui hmm. moo tax ma ne la on va vers de sérieux problèmes c'est pourquoi moo tax muy yow muy keneen koo xam ne il a de faire de sa mission hmm. xoolal de d'être dans la société civile mmh. quels que puissent être les écueils lu mu ko jaral pour que déggoo bañ am na ko jaral pour déggoo am parce loolu mooy tax ressort yi dëgër Hmm. cette mention là waruñu ko caaxaanee Ablaye c'est-à-dire élection ñaari fan ñett mu jàll 165 députés la ñuy nekk. sur combien de 18 millions. c'est pas les plus méritants c'est pas les plus compétents. Hmm. Hmm. xam nga politique Ablaye. mais quel brillant parcours que tu as parce que tu na jamais xoolal arrêté de te former mais à côté de ça des gens empruntent des raccourcis pour jouer les premiers rôles. la politique est un formidable raccourci qui permet aux plus médiocres de jouer les premiers danga naan du ma ko def bañ na d'autres l'ont vont le faire vont légiférer pour toi c'est pourquoi moo tax y a des gens yoo xam ne dañu toog ba ci ak ñu dinaa ci dugg parce que su ko deful tey ki may jox ndigal mais ëpp ma mbir ëpp ma compétence mais ku nekk ak sa mission am na ñoo xam ne ñu d'accord ne dañu dem defi politique mu jaral leen lépp mais ay valeur ak ay vertu war na ko mun lal parce que tey bu ñu amee tey élection bi ñu am mais un cas inédit salué à travers le monde. Hmm. yàlla dikk def li mu def. kon nag war réew mi war a jógee def ay yoo xam ne. Hmm. dafay renforcer démocratie am parce que le Sénégal n'est pas n'importe quel pays ñooy nekk fii di nekk ci ay détails yeeg ay kii nangam nangam mais c'est une grande nation un hmm. phare de la démocratie en Afrique. évidemment dañ jóge ci législative boo xam ne assemblée gis ngeen ko xam ngeen ko équilibre bi mu amoon lan mooy intérêt wu bi est-ce que ci xalaatin sax dañ naan renforcer démocratie bi mooy équilibre. <laughs> Ablaye xam nga démo xam nga assemblée bi. mënuñu ko ñàkk a bañ a tas man dama jàppoon. non non waxuma tas bi. waaw c'est-à-dire ci assemblée boo xam ne amoon na semble amoon na équilibre ah, ci force yi. Euh, non mais voilà man man man li ma jàpp mooy saa dañuy dem ci élection yoo xam ni euh, enjeu yi c'est énorme c'est énorme déjà ñi nga xam ne dañuy door a ñëw nekk fii le pouvoir actuel dinañ def le tout pour am majorité. majorité mécanique pour que ñoom ñu mun a jàllale seen i seen i seen i projet quoi mun a jàllale seen texte de loi loi yu ñu bëgg a modifier wala boog euh, programme bi nga xam ne moom lañu ñu bëgg a donc ñoom ils sont dans une logique d'avoir coûte que coûte une une majorité et puis ça a toujours été comme ça pour tous les régimes qui se sont succédés. C'est normal d'ailleurs hein. Voilà, c'est qui est normal. Mhm. De l'autre côté également opposition ñoom ils feront le tout parce que tamit am na ñoo xam ni dañuy jouer seen seen survie politique am na ñoo xam ni mm-hmm. tey <laughs> bu ñu nekkul député wala bu ñu demul am yenn limi pour mun a am benn groupe parlementaire boo sàggunul Abdoulaye ils vont complètement disparaître de l'autre côté également am na si ñoo xam ne jàpp nañ que ni il faudrait que tey ñu am euh, benn euh, benn nombre de députés boo xam ni dinañ mën a am yenn yenn yenn pouvoir yi pour mën a mm-hmm. contrôler l'action du gouvernement donc donc les enjeux pour moi sont son son sont énormes mais tout mais en tout état de cause man li ma jàpp mooy Sénégal doo doyen Abdoulaye moo ngi koy wax léegi nous sommes une très grande nation c'est-à-dire que tey sunu homme politique yi ci kaw ñu bëgg ko Abdoulaye gis nga bu ñu bëggee régler mbir dañ koy régler keroog il fallait être dans la salle pour voir ambiance bi ñu nekkoon. Mhm. c'est-à-dire il y avait une sérénité absolue parce que moment bi ñu fay nekk xëy na kenn ku nekk bëggoon nga balaa ñu fi génn ñu am solution. parce que kujje gi ñëwoon seen mbébét moo nekkoon ñoom effectivement balaa ñuy génn ci salle bi ñu ni leen am nañ euh, accepté nañ ñu poussaat dépôt bi de deux ou de trois jours. Mmh. donc lo parce que ñoom bu ñu bëggee dara la doyen mu ngi wax léegi les acteurs politiques bu ñu bëggee dara c'est-à-dire du ma dañuy jaamu seen soxla de mais dinañ nekk ci cadre boo xam ne ci disposition yoo xam ni dinañ def de telle sorte que dina am sérénité dina am dal ba keroog ñuy am lu ñu bëgg. maintenant beneen aspect bi moo ci bëggoon dolli Abdoulaye sànq yaa ngi koy wax sànq yaa ngi koy wax léegi yaa ngi naan lan moo tax euh, la mouvance présidentielle amuñu woon représentant ci biir salle bi mais man dama jàpp que ni parce que ñun communiqué bi ñu jot li tax sax ñun ñu dem mooy le ministre dafa ni j'invite les parti politiques les coalitions de parti politiques les entités regroupant des personnalités indépendantes pour que ñëw ñu ak la société civile pour ñu ñëw ñu waxtaan. Mm-hmm. moo tax sànq ba léegi dama siy ñëwaat lan moo nekkoon soubassement waxtaan bi bul fàtte que ci veille bi lu groupe ad hoc de facilitation dañu dem rencontrer ko te groupe bi bi ñuy dem di ko rencontrer c'est parce que certainement ay jafe-jafe am na Abdoulaye. Mm-hmm. donc bu ñu accepté ne nañu woote daar-daar jour bi nga xam ne ci lañ doon def commencé dépôt yi ñu accepté woote ci waxtaan c'était que pour. certainement quelque part gis nañ ay euh, ay difficultés yoo xam ni il fallait que ñu lever ko te lever boobu il fallait que mu am waxtaan moo tax man <laughs> franchement. bi ma hmm. xëyee tey ñu envoyé ma communiqué pour wax que ni finalement on n'a pas on n'a pas accepté de d'allonger ou bien de proroger le délai de dépôt. man hmm. j'étais vraiment surpris. mais encore une fois su ngeen ko prolongé woon enfin su ngeen ko ñi fa nekkoon sans wàll bi est du ngeen leen tooñ. parce que aussi bu boobaa que mën na créer beneen parce que non loolu aussi comme li nga wax ah. je suis mais est-ce que la en fait euh, ma question mooy lu tax laajoo leen en fait peut que du yéen a war laaj aussi ministre de l'intérieur. waaw léegi lu tax ñeeteewuñu. et bon et man mun naa dem sax beaucoup plus loin. parce que léegi invitation bi. non ni ko waxee noonu. mun nañ d'accord ni kon ñëpp la invité. ñëpp lañu invité mais maintenant xëy na loolu mënoon na nekk benn question préjudicielle. avant ñu dem dans le fond. ñu ni voilà pourquoi. est-ce que la mouvance présidentielle est représentée xam nga loolu bu ñu ko defoon question préjudicielle bien sûr donc avant ñuy dem dans le fond donc on allait régler cette question maintenant est-ce que aujourd'hui on va continuer ou pas vu que euh, la mouvance présidentielle n'est pas représentée su boobaa xëy na mais Abdoulaye gis nga il faut aller dans le fond xam nga lan mooy fond bi ñu xool yuq bi lan moo lan moo sabablu ñu woote mbir mi man li ma jàppoon mooy li ñu woote c'était pour que ñu régle difficulté yi nga xam ne opposition bi am na ko. parce que mhm. en réalité aussi opposition bi dafa am ay difficulté xam nga parfois nit mun na am difficulté yi yow nga xam yow ngay kilifa nga xam ni que ñii am nañ difficulté mais pour nga lijjanti difficulté boobu il faut mu am benn élément déclencheur élément déclencheur bi c'était le comité ad hoc donc ñu déclenché ko donc bi ñu ne ci salle bi xamoon nañ que ni lii lañ bëgg xam nga politiciens yi aussi ils sont très intelligents. Mhm. bi ñuy dugg ci salle bi xamoon nañ ni que ni ñetti ponk yi bëgg nañ ci waxtaan mais lii lañu bëgg a lever difficulté bi mooy lan fexe ba tey ñu fexe wut benn prox ndoll benn possibilité boo xam ne dañu mën a allonger prolonger délai bi c'était ça moo tax waxtaan wi. te te Babacar liy dëggal affaire yi. Atel ñoo posé problème au ministre de l' intérieur. ah tu vois. ndax ma expliqué ñoo mhm. posé problème te mhm. Atel. kan moo koy jiite Khalifa Bakar Sall. Mhm. donc la pratiquement la la majorité. wala l' ensemble des partis de l' opposition ñoo dajaloo créé benn cadre daal ne cadre bi c' pour la transparence de des tout de suite gis nga le décret même. a été attaqué. le conseil a dit non leen Mm-hmm. bi ñu ñëwee ci première réunion bi. Mm-hmm. certains étaient crispés. Mm-hmm. et loolu moo tax Omar Sarr. c'est mon grand frère pour qui je beaucoup de respect. position bi amoon agréaction réaction ministre de l'intérieur mu yàq waxtaan bi ñu crispé ñu tàqali ko. mais le problème était venu de l'opposition donc le camp du pouvoir. je les défends pas je les discute pas jàpp naa ne ñoom peut-être xëy na nee nañu jafe-jafe ñun amuñu ko duñu poser problème l'essentiel que ñi nga xam ne am nañ problème ministre de l'intérieur bu wootee nañ dem wuy xam nga législatif Ablaye ci histoire Sénégal ci Senghor ba ci Macky Sall benn cas inédit rek moo ci am parce que fu président la république Moussa Fallo ci élection présidentielle jox nañ ko majorité pour législative mm-hmm. ba où un cas historique a failli se poser dans le Sénégal parti au pouvoir président de la République a perte majorité. xam nga loolu dina am ci démocratie avancée yi comme ay France ak ay yooyu moom indi cohabitation. mais bul fàtte en la woon de. Mm-hmm. il a fallu que après des tractations. du mm-hmm. président de la République de l'époque mm-hmm. mu jël langue ak Pape Diop Pape Diop accepté de rejoindre la majorité présidentielle. loolu moo tax après. ñu am 83 contre 82. Mmh. mais boobu on a failli assister xool à une cohabitation c'était la première fois dans l'histoire politique du Sénégal. Mmh. mais avant ça à chaque fois que président la République falu na rek day am législative boo xam ne da koy permettre du am blocage. donc mi xaw nañ koo xëtti tuuti sax Abdoulaye. mu ngi xool parce que. xool la fële. commissaire Abdou Aziz Sarr euh, directeur des opérations électorales peut-être wax na ak Habib Faye ñu déglu commissaire Abdou Aziz ah non ça c'est pas commissaire Aziz Sarr ah. communication turu coalition yi ak turu entité indépendante yi dëmb la jeex ci minuit dëmb également ci suba la dépôt dossier de candidature yi commencé donc ñu commencé ko dëmb ci ay côté 9 heures tey moom mooy continuer su jeexee tam moom it minuit tey lay arrêté su jeexee dinañ dugaat ci beneen phase mooy nag saytu dossier yi ci seen fond pour xam ndax est-ce que li texte yi demandé yëpp pour ñu remplir ko remplir nañ ko ku ko remplir ñu mu nekk list bu recevable ku ko remplirul aussi nga xam ne vraiment euh, dafa irrecevable du ci ñun. ñu tam tollu euh, ñaata dossier ngeen recevoir. waaw jotagum nañ fukki dossier ak juróom-ñett ci ñuy waxee ak yow am na nag ñeneen ñoo xam ne ñoo nañ ñu ngi taxaw léegi dinañ leen jël. également ñu ngi xaar ñi nga xam ne ñu ngi ci yoon yi di ñëw parce que fii ba minuit ñu ngi liggéey incha allah. alors gars yi sont adeptes des situations de dernière minute euh, ban message nga leen di lancer parce que au delà de minuit du am benn euh, benn yokk boo xam ne dinañ ko yokk ci délai bi. waaw di leen wax rek ne ñu mottali seen yi bala ñu yegg si ñun daal li ñu yoon sas incha allah duñ ko wàcc mooy dinañ toog bu bës bi jeex. c'est-à-dire bu min wi jot koo xam ne miin wi fekk na la fi te sax commission bi mënagul a jël dinañ la jël nga toog xaar aussitôt après ñu jël la mais koo xam ne nag min wi jot na te ñëwoo fi aussi dinañ jël sa dossier mais nga xam ne yegg si nga hors délai donc la cay tegu peut-être loi bi réglé na ko ba pare parce que ci condition de d'irrecevabilité yi bokk na ci nga indi sa dossier hors délai mais daal ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci yoon yi di ñëw daal nañu xam ne ñu ngi leen di xaar vraiment des directeur général des élections sas nañu ñu def ay kii équipe yu doy installé pour ku ci ñëw rek ñu jël la en charge bu njëkk parfois benn équipe a doon am donc daf doon xaw a yéex tuuti ak yooyu mais toujours rek xam nga administration da ngay gën di defar du dëgg mais bi yoon dañ xaw a gën a éclaté wu créé ay ay commission yu xaw a sakkan pour que ku ñëw rek ñu mun la jël en charge su ko defee rush biñ doon gis fi mun na fi ñàkk bañ a am. mën nañu rappeler les dispositions de la loi électorale boo leen paree dépôt euh, euh, suite bi nga xam ne moom la DGE yor en charge jusqu'à la publication euh, définitive de liste. waaw mooy li ma la doon wax rek suñu paree tey à minuit donc dañuy dugaat ci dernière phase bi mooy phase analyse examen juridique. boobu juróomi fan la. commissaire Abdou Aziz directeur des opérations électorales point boobu mu ngi ko doon def ñu préciser ko à vingt une heure vingt cinq donc dix huit liste la woon fi mu toll nii minuit xëtt na minuit dix dinañ ñëw léegi ak suñu ndaw yi ñu fa nekkal Habib fay ak euh, Chérif Dia Chérif it euh, wax dëgg ñu ngi koy sant euh, dem na xool yi ànd ak Habib <laughs> Faye <laughs> xam nga Chérif da xoo xobe quoi xam naa bëggul kenn ku ko nettali te pourtant mu ngi ci mu ngi ci xat-xat <laughs> waaye nag jàmm rek la donc xam naa ni léegi mu defal ñu le point ñoom ñaar ñu mën a xam à minuit euh, fan lañ toll peut-être que am na ñoo xam ne dugg nañ ni ko commissaire Abdou Aziz Sarr waxee woon minuit daal dinañ tëj bunt yi ku duggagul moom xay na dootoo bokk mais xëy na au-delà de minuit bu ñu nekkee ci biir. dinañ may njekk ñi nga xam ne jot nañoo dugg parce que xëy na mm. procédure yi moo tax mu yeex contrôle mm. yi ñuy def parce que ñoom am nañu quand même un contrôle bu ñu a priori bu ñuy def pour wàññi papier yi xool ndax euh, voilà san mm. sans mu doon lu contrôle de fond tout à fait contrôle juridique bi tout à mais dinañ contrôle ndax pièces yi mat na. Mm-hmm. li nga war a indi pièces yi nga xam ni warul manqué. Mm-hmm. nga indi ko après nag ci la ñuy dugg ci et puis branle-bas ci coalition yeeg état-major yi ah. xam nga ah. yàgg na yàggul yaa deux ans. gis nga moment bi ñu ci toll nii juste. <laughs> oui les dernières minutes là avant minuit jot. Mm-hmm. ce qui s'est joué. entre Khalifa Sall Barthélémy Diaz Déthié Fall Sonko. pour ceux qui étaient informés mi ngi mel ne tey ci ñun. xoolal boobu les gens avaient dit à Barthélémy il faut nga dindi benn góor pour ñu dugal benn jigéen. wala sinon forclore am avant minuit. Euh, xoolal tractation yi. Mhm. ba léegi nag. dara bee sofi loolu mooy amaat nii rek il faut pas oublier que règle yooyu moo fi nekk ba ci parité bi quand même. tout à yi donc au delà de constitution liste yi aussi règle parité bi. c'est très important ci liste yi moom kay à part parrainage bi moom moo tëb parrainage bi rek lañ lañu hmm. lañu tëbal mais sinon. Parité. Euh, dama ju euh, waaw ma ne parité bi bu ça demeure. waaw parrainage bi rek moo kii mais sinon. Euh, yeneen. caution bi yeneen ah, caution bi c'est là. CDC bi CDC bi c'est là donc. ci fàttali rek yéen a ngi fàttali cutis CDC bi sax nit ñëwoon na joxe 15 mi te joxuñ ko cutis. voilà ñu bañal ko ko yooyu yëpp jaar na fi. mais bon puis surtout surtout. mais mais li li kii mooy dañuy buté ci point yoo xam ne nii point yoo. xam ne ñu dépassé woon na pratiquement. non et puis non et puis en fait xam nga. les mentions obligatoires duñ ci baale benn. Mhm. cest à lu ndaw lu yem ni bën bën puso boo ko ci fàttee rek. Mhm. la liste elle est déclarée irrecevable. loolu tax mu tudd obligatoire tamit. voilà c'est ça <laughs> mais moo tax nag bon xam nga investiture. Abdoulaye du lu du lu yomb quoi c'est pas c'est pas aussi facile. Mhm. ni ko nit ñi xalaatee. man am naa chance su dem ci ay QG gis ni ñuy confectionner liste yi quoi. bien sûr imaginez dans tous les départements nga war fa ñi nga xam dañ fa war am ay liste war a respecter parité. war a respecter joxe tur bi joxe yenn pièces yi case yi. et tout ça xëy na pousser doo ci génn. organiser et gis nga moment yu mel nii soo amul expert électoral bu la gunge doo ci génn da ngay dem gars yi disqualifié la. Mhm. parce que dafa am gis nga l' administration la <laughs> Ablaye est rompue à la tâche. Mhm. mais le directeur des élections du magistrat la. Mhm. et puis sax foofu Ablaye euh, dogguma la de c'est-à-dire que li mu wax ni aussi. bien c'est vrai gis nga. Euh, <coughs> la DGE la direction générale des élections c'est bon de le préciser DGE bi directeur général des élections bi rek moo changé candee mm. la mais gis nga nga xam ne moo nekkoon DFC et qui était quand même non ils sont tellement pertinents voilà moom non non cest tellement bons comme Sir Aziz est resté à son poste non c'est-à-dire on a on a une très à dire très sincèrement c'est-à-dire que cheval sur les textes dañu maîtriser textes et puis keroog maa ngi waxtaan ak même le le le directeur Birame ma gis cest à envie bi ñu am pour accompagner de par des conseils. ñi nga xam te ñoom ñooy les partis politiques et les coalitions de partis politiques. Mhm. gis nga même boo demee ci site euh, DGE man dugg naa ci site bi ça dañ ko mettre à jour mais pratiquement Abdoulaye y a toutes les informations au niveau au niveau de leur site. Mhm. donc ñoom également même tey boo demee ba ci biir da ngay gis les éléments euh, de la direction dañuy accompagner. les coalitions di leen guider sans que ñu ñu am ci benn influence mais dinañ jouer benn rôle facilitateur parce que parfois mu nga gis nit jaawale pièces yi dugal pièce bi alors que du boobu donc ñoom également am na souplesse boo xam ne tey très sincèrement war nañ ko mën a reconnaitre ñi nga xam te ñoom ñooy la direction générale de euh, des élections. Mm je pense que ci wàllu administration moo tax peut-être amuñu tiitange sax ci. li ñu doon wax sànq ci organisation matériel bi ci liste yi parce que ñoom xëy na. mais nag organisation matériel bi foofu naa la wax leen parce que keroog bi ñu demee ci rencontre bi ñoo ngi ko doon soulever c'est-à-dire que léegi nombre de listes yi ñu am Abdoulaye c'est énorme imaginel papier A4 bi nga war ci tirer ñaata ñaata pour en fait combien de bulletins nga ci war a tiire mhm. nga war ko et puis ci délai yi impression bi.

yow bi nga ko defee ci biir salle bi. Hmm. Babacar Gueye daf ma xool. parce que loolu nga wax bi ñu nekkee ministre de l'intérieur dañ ko ko waxoon yooyu. Hmm. Hmm. c'était pour alléger. mais xam nga loolu. code électoral bi. dafay prédominer mais su fekkoon ne consensus am na. dañ ko doon yombalal. ah bien sûr ndax tey boo jëloo rek tête de bi rek def ko rek moom fotom kese. waaw ah, def mu ñi ci des nga kii leen trouver solution. day yomb mais gis nga parti politique yi. souvent dañu am seen ay logique bopp te gis nga def nii ci dans le jeu tey. je rends hommage à maître El Hadj Mbodj. Mhm. gis nga dans les années quatre vingt dix. Mhm. tout ce qui tourne autour du jeu politique xalaat na ci ba jël conclusion jébbal ko Abdou Diouf. tout à ci dara lu ci desoon c'est-à-dire xoolal tey. Mhm. lépp a ngi dans les tiroirs. c'est pourquoi moo tax bu ñu delloo ginnaaw yooyu heureusement que l'ossature demeure et reste de l'administration électorale c'est des gens muy xoolal chevronnés. gis nga xam nga c'est là où le débat mhm. autour entre les juristes mhm. des passionnants mhm. Ablaye Cissé moi un émis un éminent professeur agrégé de droit bu nekk ci dëkk bi ñëpp xam Ablaye il m'a dit Abdoulaye Fofana Seck le jour où j'ai eu des déboires au tribunal dama yéemu ci yàlla mu ne ma xoolal entre nous les théoriciens du droit dafa jàngal université ak les magistrats yi nga xam ne ñu ci bari jàngal nañ leen ñu dem nekk ko mhm. les praticiens du droit dafa mel ne yàlla ak yàlla dafa mel ne a jour et la nuit gis nga bu ñu tegee code de procédure pénale mhm. article article article gis nga yow mi leen doon jàngal université Dakar da ngay mel ni ko réer mhm. c'est pourquoi moo tax gis nga théorie droit ak pratique a dafa bokkul. Mm. di nga am dëgg sax ñàkk ko parce doo xam fu ñu lay jaar. mais gis mm. nga ñooñu nga xam ne tey xam nga tey recevabilité liste bu yegsee ba pare. Mm. kooku la forme la. mais gis nga fond bu ñu demee. am na dañu di disqualifié. tout boo amul tey expert électoral bu nekk ci sa keppaar di la dimbali accompagner la boo demee dañu lay rejeté. parce que c'est exercice très simple. tout à donc yooyu nag yëpp nag après mais nag xam nga moo tax aussi peut-être expert électoral yooyu euh, doyen Abdoulaye du ñëpp ko am nag c'est-à-dire les moyens ah moo tax ma ni il faut tamit gis nga démocratie il mhm. faut regarder également les plus faibles mhm. tey am na ay coalition yoo xam ne dañuy dañuy dañuy door a dem donc ñooñu également c'est-à-dire il faut mu am benn accompagnement boo xam ne dañ leen koy defal parce que bu ñuy bu ñuy bu ñu di faral di xool rek ci ñi nga xam ne ce sont les les en fait les grandes coalitions ñooñu am na si ñoo xam ne ils n'ont pas besoin sax d'experts parce que tey boo jëlee coalition bi Khalifa Sall jiite nga xam ni dem na élection demati ko je ne pense même pas que ñooñu soxla nañ tey am ay elec ay ay experts électoraux mais am na ay indépendantes yoo xam ni ñoo ngi fi am ay parti yoo xam ni parti yu yemamaay la mais ñooñu pour man xëy na mun nañu bañ a am moyen pour mën a am ay experts. Mhm. parce que ñooñu parfois pour que ñu génne caution 15 millions bi sax problème la. mais dañ ko dul am dañ koy wut. waaw léegi nag moo tax pour man war nañu mën a trouver ay mécanismes ñooñu également ñu leen di sóoraale accompagner leen bon je sais pas peut-être euh, DGE wala bon. xam nga may leen temps may leen souplesse également moo tax ñu démocratie censitaire. Mhm. je parle argent. Mhm. pour ceux qui comprennent la langue française ñenn ñi ne dafa baaxul parce que day disqualifier ñu xam war nañ ci parce parce que xam nga dafa am point boo xam ni dafa am solo mooy gis nga égalité dafa am solo gis nga bu ñuy dem le jeu démocratique également dañu war a dem ci en fait sur la même ligne mu am égalité mu bañ a am rupture d'égalité moo tax mhm. sànq ma doon wax que ni man pour man dès le départ sax dafa am rupture d'égalité parce que keroog bi président euh, saisiré conseil constitutionnel mu génne décision ñoom ñu am ko pour man déjà waroon nañ ko mën a publier pour que déjà euh, tous les acteurs ñu xam ni que voilà décision bi génn déjà parrainage du am tel loolu la ñuy voilà dañuy dem élection mais xam nga am na yéen yoo xam ni mooy permettre boo ko boo ko jëfee moo lay yombalal li ci des moo tax déjà les acteurs politiques am ci yow confiance ne ah ñun kat franchement mun nañu dem ci élection yoo xam ne dinañu am ak xel mu dal parce que rupture d'égalité bu amee sa fausse le jeu électoral. et, xam nga président aussi quel que puisse être le cas de figure. il l'a programmé je suis au-dessus de la mêlée bokkatuma sax Pastef je suis au-dessus. Mhm. bi mu jógee tey ci tukki bi mhm. yegg si tey. Mhm. bi muy def déclaration. bi mu waxee affaire inondation yi vraiment. Euh, indi cofeelam ak ay kiyam ci ñooñu. wax na ci affaire élection yi. mais quoi qu'il advienne lui il sait que li ko taslu assemblée nationale il veut plus que n'importe qui. une majorité pour pouvoir légiférer. Mmh. donc tey am na si loo xam ne aussi di nga ko mën a xel dina ko mën a xalaat tu as vu du lu ñuy wax mais. mais mais mais mais doyen nañu jiital waxtaan xam nga lu tax. waaw fi mu ne non naa waxtaan bi kañ moom. jotuma ne non parce que xam nga déjà. am yëpp. parce que doguma la gis nga même le décret. décret convoquant le corps électoral pour man am na ci disposition yu bëri yoo xam ni waroon nañ ko mën a waxtaanee lu ci mel ni date élection bi. lu ci mel ni dañuy tëbal parrainage bi lu ci mel ni calendrier électoral bi yu si bëri pour man le décret c'est xam nga dama déglu mu Moundiaye Cissé muy expliquer ne autant le décret bi nga xam ni moo dissoudre assemblée nationale le décret est légal amuñu si benn problème c'est dans les prérogatives du président de la République mais également le décret convoquant le corps électoral pour man am na ci ay aspects yoo xam ni surtout le calendrier électoral booy dem ci élection anticipée waroon nga jël le temps que tu en ak ñi nga ko séqal moo tax quand j'ai vu dans le communiqué du conseil des ministres mu woote mu demandé mu joxe ay ay ay directives à ce que ñu dem ci ay waxtaan discussion ay discussion mm-hmm. là j'ai parce que là dama ni bon certes loolu la waroon jiital mm-hmm. mais ba tey comme moo ngi dabu lu am solo la waaye nag. am nga xam nga décret chef d'État pour nga attaquer ko sur le plan mm. juridique xam nga tax muy mu jafe. Mm. n'importe quel président de la République. Mm. démb ak tey ak ay conseil juridique des hommes. ajoy waxuma ñu attaqué décret bi avant mu doon jël. waaw d'accord naa mënoon nañ ci waxtaan. d'accord naa ñu trouver consensus ci mooy xam nga. atel dañu attaqué décret bi conseil constitutionnel débouté leen. Mm-hmm. loolu laa lay wax dama toujours jàppal ne comme il a des conseillers juridiques juridiquement pour nga attaqué ko ci dafay jafe parce que jaar na tey. Hmm. fi mu war a jaar am na éclairage. tout à fait donc loolu laa lay expliqué ne la xam nga tey. Hmm. atel dañu dem attaqué ji conseil ne leen non amu ci sañ-sañ. Hmm. c' est pourquoi gis nga moo tax gis nga droit. ñi ko jàng sax jeune frère dañ ci dul déggoo mbasamaa ñi nga xam ne. xamuñu ci dara. c'est pourquoi moo tax gis nga des fois am na ci bari yoo xam ne. Mhm. doo jóg rek am ci benn approche dogmatique bu nga xam ne. Mhm. il faut pas être dans le dans il faut pas fugé. tout parce que président de la république démb ak tey. Mhm. waxtu wuy def benn affaire. laaj na ñi mu war a laaj. xelal nañ ko bu mu génnee. Mm. doo ko mun a attaquer juridiquement. Mm. c' est pourquoi moo tax ma ne la c' vrai ça n' rien avec la concertation permanente te gis nga mm. concertation. moom laa la wax ne la conquête démocratique yi ñëpp yëpp. waxtaan moo koy indi. après loolu mooy suuxat démocratie. mooy tey man mën nañu bokk bañ a gis gis-gis man ak yow. Mm-hmm. nga wax sa xalaat ma sa xalaat léegi nga enrichir ma. ma enrichir la mais loolu mooy avancé loo. mais xoolal démocratie mm-hmm. mais. nit ki du ngeen bokk nu ngeen gisee. Hmm. ñii dañuy gis jëm fële ñi gis jëñ fële mais gis nga homme politique yi. <laughs> sañu ma ko wax ñëpp mais ñi ci ëpp. Hmm. dinañu gis xam ne jant bee nekk nii ñu ne la gisuma jant. Ah, parce que tout simplement boobu dañ nekk ci ay calcul purement politicien. Hmm, te pourtant in fine xam nga derrière le théâtre là qui se joue. ñoom ci seen biir ñu ci bari. waxuma ñëpp dañuy dem lante di dëkkalante di waxtaan seen biir di leen gis des fois ñu tasee ci benn cérémonie gars yi nga defee nañuy reyante fekk ne mm-hmm. ce qui se joue xoolal ci suuf doo ko sax mun comprendre c'est pourquoi moo tax ñoom non non là vous avez... en de faire euh, non non vous avez parfaitement raison mais mais bon d'accord naa ci mais xam nga ñun euh, muy man di yow acteur de la société civile ñun politiciens yu juboo wala ñu ñàkk juboo suñu rôle dañ koy jouer absolument mooy rappeler toujours les principes dañuy dem ci élection législative sa rôle man sama rôle mooy ñu fexe rappeler les principes principe bi mooy dañuy dem ci ay jongante da nekk jongante yu leer jongante yoo xam ni euh, du am xiiroo ngaayoo du am violence mais jongante yoo xam ne également du am rupture d'égalité jongante yoo xam ne également dinañ def de telle sorte que li nga xam ni mënuñu ci déggoo ñu waxtaanee ko ba am ci ay consensus parce que gis nga doyen man li ma gëm et chaque fois je le rappelle élect gis nga consensus pour man c'est un préalable c'est-à-dire consensus dafa fondamental ci processus électoral dëgg la di nga wax ñu ne la woy yaa ngi wax consensus mais loi bi prévoir na lii pourquoi mënuñu tënk ci lu loi bi wax mais d'accord mun nañu tënk ci lu loi bi wax mais parfois dañuy accepter que nu sommes des êtres humains parfois mën nañu jékki-jékki am ay difficulté am ay divergence te pourtant la loi elle est là la loi est claire mais bu ñu amee divergence te loi bi wax lii naka la ñuy def mais il faut ñu toog waxtaan moo tax moo tax mhm. moo tax ma ni mhm. xëy na ñu ñu prévoir ci le code additionnel euh, protocole additionnel de la CEDEAO ne d'accord y a les lois mais bu ñu demee xëy na ba ngeen am ay jafe-jafe bu ngeen amee un large consensus mën nañu modifier texte yi parce que les lois également dañ ko def pour di ko modifier ça dans, dans les années 2000 ça va faire peut-être bientôt vingt ans mhm. bi may lancé consensus citoyen pour la République mhm. j'ai sans le consensus mhm. suñu démocratie am na foo xam ne du fa yegg consensus nag ci ñi dégg tubaab bokk ak consensualisme ba tax na tey gis nga il faut ñu mën a xàccandoo dóorandoo ci kaw au départ dañ dul déggoo mais dañuy dem pour déggoo ci ndax gis nga démocratie du lu nekk offre une œuvre parfaite mhm. d' ailleurs la perfection n'est pas de ce mhm. gis nga toujours jurisprudence pour les juristes nan lay juddoo mhm. mooy cas boo xam ne kenn calculé ko woon mais Babacar nu étions là yàggul l'après de avril hypothèse yëpp nit ñi xalaat nañ ci ba jaaxle kenn gisul solution suñ borom rek mooy indi solution Mm-hmm. donc il faudrait que bu ñu waxtoo génne ci élection yi man li ministre de l'intérieur wax d'accord naa ci cadre permanent de concertation <laughs> périodicité bi day nekk par mois wala par euh, deux mois mm. mais il faut ñu toog retrouver wu fa ça fait que ay convergence yu dëgër mm. pour mën a gën a suuxalaat suñu démocratie parce que mm. élection bi c'est la dernière élection élection législative bu ñu ko defee après des élections locales se profilent 2029 c'est après demain xam mais c'est les prolongations c'est le deuxième tour ah. c'est 2029 qui se profile à l'horizon vous êtes vous êtes euh, tous les deux parce que mm. c'est vrai que ni ñi remarque nañ ni bàyyi naa leen ngeen di waxtaan mais dafa hmm. fekk hmm. Euh, ñu doon fi communiqué boo xam ne je pense que gis ngeen image yu Guy Marius Sagna quand même mm. au Togo ouais. député mm. dans une réunion bu ay nit dugg si euh, voilà ci kujje politique bi foofu jot nañ ko blessé mais heureusement mu ngi woon ci waa Kër Docteur. gis nga mhm. ko dugg nañu tas réunion bi euh, xeex ak ñoom gaañ nañu ko mais. Mhm. rien de grave en tout cas ci li ñu jot a am comme information. communiqué au ministère des affaires étrangères ministère. Mhm. Mhm. de l'intégration africaine et des affaires étrangères foog ñu liiral leen ko voilà communiqué ngi nii le ministre de l'intégration a pris avec consternation l'agression violente dont l'honorable Guy Marius Sagna mhm. député du Sénégal et la CA e a été victime le 29 septembre à Lomé au Togo L'honorable député Sagna est au Togo pour prendre la troisième session extraordinaire de la commission du Parlement de la Il a profité de l'occasion pour participer à une réunion organisée par des citoyens togolais qui sont aussi des mandants. Mmh. Selon le député, cette agression brutale par des nervis a eu lieu dès l'ouverture de la réunion. Mm. Le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères condamne avec fermeté cet acte inqualifiable et souhaite un prompt rétablissement à l'honorable député Guy-Marie Sagna. Mm-hmm. Après un entretien téléphonique avec l'honorable pour s'enquérir de son état la ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères a informé son homologue togolais et demandé que l'intégrité physique de l'honorable député soit protégée. La ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères apprécie l'engagement de son homologue togolais à prendre toutes les mesures appropriées pour que la sécurité du député Guy Marius Sagna soit assurée. Mm. communiqué wu kon madame Yacine Fall. ministre mm. de l'intégration africaine et des affaires étrangères. ci mm. agression Guy Marius Sagna très rapidement. Oui. on peut se sentir quand en paix en sécurité. dans ah, tout à fait. sous-région. je euh, pense que euh, opposant ñëw fii Sénégal warul. tout à fait tout à xataal ko fi tout comme sénégalais aussi député wala homme politique warul mën a dem ci sous-région bi dara di ko fa fekk. surtout que ñun nga xam ni Sénégal euh, comme ni ñu ko waxee le pays de la teranga. ñun je pense que ni façon activiste bu ne ñëw na fii te mosuñu bund xatal kenn donc li nga xam ne tey moom moo dal yu Marius Sagna yëg naa ko sàng ci ngoon lu ñuy condamné la lu ñuy naqaru la déjà gis naa sax Alioune Tine euh, président fondateur de a Jom Center mu def benn communiqué. donc di ko di ko di ko ñaawlu. communiqué baa ngi nii sax voilà aussi d'ailleurs voilà ah, ah, exactement mais. Euh, voilà voilà ci. waaw ñëpp a koy ñaawlu ah man mm-hmm. communiqué bi sax envoyé naa ko Ablaye Cissé parce que mm-hmm. Aline bi mu ko. Mm-hmm. Euh, condamné envoyé na ma ko. Euh, d'abord Afrique. lu mel nii. dafay ternir image tout à fait ndax le Sénégalais doit se sentir à l'aise au Togo. Mm. le Togolais doit se à l'aise au mm. Bénin. Mm. donc gis nga ces pratiques barbares là. Euh, loolu dañ ko war a condamner rafetul. Euh, ba tax na daal euh, Afrique. en profonde et perpétuelle. pleine mutation. yu mel nii tey buñ koy xool. day delloo suñu continent bi lu bari ci ginnaaw parce que Guy Marius Sagna su demee tey Togo war nañ ko dalal tatal xoolal ah, le premier président de la République du Sénégal mmh. le chante du rendez-vous et du recevoir mmh. rendez-vous du et du recevoir la civilisation universelle mm. mais combien de gens Ablaye mm. ñoo xam ne Amérique lañ dëkk Mhm. wala Europe wala ci biir Afrique bi. def na leen ay sénégalais fii jox leen nationalité sénégalaise. bien sûr parce que pour moom il a toujours vu que le monde là benn rek un indivisible. donc tey bu ñu doxee plus de 60 ans après. Mhm. ay Yasser Arafat ñi ñëpp xoolal Senghor daf leen adoubé. donc tey ñun sénégalais yi bu ñu génnee dem fu ne war nañ fa mun a nekk à l'aise comme n'importe quel africain aussi bu génnee Guy Marius Sagna moo xam nga souvent. Euh, Ablaye. Hmm. du ma sax bugg a wax parce que ça peut paraître très subjectif. Hmm. c' est quelqu'un qui a payé ci hmm. combat bi nga xam ne mënee na ko ci diir bu yàggul ci ginnaaw ba nga xamee na nekk na ministère de la santé di fa liggéey. def fa def ñëw dàq ko mu mëne combat yi jàpp nañ ko jàppati ko. mais man damay wax ngir yàlla. dafa am benn image yu Guy Marius dafa daw sama yaram ba léegi. Hmm. mooy dans cette séquence historique de 2021 2024 lorsque mm. l' actuel premier ministre là Ousmane Sonko avait des déboires avec la justice. Hmm. bi ñuy fistel Mermoz les forces de défense di nga jaar fii doo jaar fii kii yu bàyyi ko jàpp. Hmm. mais bi Guy Marius Sagna dawee langaamu ko. man en tant qu'humain je fais pas de l' jour boobu ba léegi Guy Marius Sagna ay mm. xoolal est dans mon parce que mm. am na si yoo xam ne xam nga souvent euh, Ablaye ti yaay fait tes humanités yi si ailleurs euh, Senghor yi mm. nekk la raison hélène mais xam nga am na ci loo xam ne asgor su ko gisee c'est pas négro-africain mais daf lay frappé ci nit parce que bu ko ci neexoon tey du gunge waa ji du ci daj lu lépp mais daf ko langaa moo ne du dem donc Guy Marius Sagna c'est quelqu'un qui mérite d'être célébré et mu am mm-hmm. beaucoup d'acteurs politiques qui sont amuñu ko bien évidemment on a les images de Guy puis, sur son lit à l'hôpital mais bon jarul l'essentiel c'est qu'il voilà il se li ma ci bëgg a mooy cest dire que pour man euh, Guy Marius Sagna ne mérite pas cet acte xam nga Guy Guy c'est un homme qui n'est pas violent est-ce que hmm. mos nga gis Guy Marius Sagna mu saaga hmm. wala nga gis Guy Marius Sagna mu yëkkati loxoom dóor nit wala mu yëkkati kàddu boo xam ne kàddu bu ñagas la hmm. Guy ak loo ko mënti waxal c'est un de paix Guy c'est quelqu'un koo xam ni il n'est pas du tout violent donc li ñu ko def nii man pour mhm. man il a beaucoup le mini voilà et puis je pense que même le euh, le ministère des affaires étrangères doit aller au-delà de ça parce que ça pour man mhm. Euh, ça mérite des sanctions voilà parce que parce que Guy Marius Sagna ne mérite pas ça man nag li may gis nii man bëgguma ko laal sama compatriote mhm. waaw ñun entre nous mën nañu kii mais bon quand on touche à un compatriote on va de Africa Jam Center aussi euh, voilà Alioune Tine Africa Jam Center a été informé par tournant la page Togo de l'agression sauvage de l'honorable député sénégalais du Parlement de la CEDEAO Guy Marius Sagna en mission à Lomé auprès de ses collègues de l'opposition togolaise sur invitation de Kafui Adjamakbo Johnson de la Convention des peuples togolais. Ses collègues, les députés de l'opposition togolaise Kafui Adjamakbo et Targon ont, ont été eux aussi sauvagement agressés. Ces actes se sont produits lors d'une rencontre avec les militants D'après nos sources, la rencontre a été brutalement interrompue par une horde de miliciens. Gis nañu image bien mm entendu. Africa Jom Center condamne sans réserve ces brutalités exercées sur la personne de l'honorable député Guy Marius Sagna, appelle les autorités togolaises à ouvrir immédiatement une enquête judiciaire afin d'identifier et de punir les responsables de ces actes criminels, exprime son soutien, sa solidarité et sa sympathie à l'honorable député Guy Marius Sagna et à à n'exercer aucune forme de représailles présents au Sénégal qui ne sont en rien responsables de cet acte. Mm. Je pense que la fin, quand même, c'est très, très important ouais. parce que, xam nga aussi, voilà, il y a cette truc sur les réseaux sociaux. Euh, mais bon, je pense que le, le communiqué de Aluntine aussi mmh. montre aussi que expérience am na lu mu ko may mm. parce que loolu lañ ci parce que on a eu beaucoup de messages quand même fleurir yooyu moom mm-hmm. xam nga c'est un de violence mm-hmm. te jaru ko Guy Marius Sagna ci boppam xam naa ni ëllëg booree dem Togo day demaat Togo mm-hmm. te lii ébranlé wu ko parce qu'on l'a vu sur une autre ah, vidéo où il donne même rendez il demande même aux gens de voilà de maintenir encore euh, leurs actions politiques yi ñuy def bon je pense que mais au moins on va rester sur ce message euh, de Alioune Tine qui appelle quand même à la sagesse ña ko def Togo jotee ñoom dara ñi nekk fii tout comme tout comme Togo sax ña ko def am na ñoo xamante ni naqarlu nañu ko mettitlu nañu ko et puis maintenant on va juste s'en tenir au communiqué de la ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères les Togolais qui sont ici chez nous voilà ne seront jamais menacés. c'est bon parce que lii ay actes yoo xam ne la. isolé yoo voilà fii le Sénégal moom c'est un grand pays. un grand peuple où on va aller Séné africain à la DGE e. sama gars yi. Chérif Chérif Cheikh Chérif buruxlu na ci édition spéciale bi mook euh, abi Faye merci Chérif en tout cas d'avoir fait le déplacement gunge Habib Faye aussi pour le gong de minuit. lan ngeen ñu mën a wax ci li nga xamante ni nii moom la mujjee Chérif Faye Chérif Dia <laughs> Habib Faye candidat yi <laughs> nekk ni nag gis nañ ni rush bi am na fii nga xamante ne moom mooy ci direction générale euh, des élections ndax tamit ci bi ñu mujj moo di Ayib Daffé mi mandataire bi nga xam ne moom mooy bu waa Pastef moom tamit euh, gis nañu ko fii gis nañ fi Cheikh Tidiane Youm euh, léegi nii gis nañ tamit waa taxawu liggéeyal Sénégal ak yeneen ci ay coalition yoo xamante nit ñoom ñëw nañ ngir mën a déposer fii jàppal ne tamit 49 listes la ba léegi waaye ñoom ñi ngi gën di dem noonee tamit euh, la ñuy def ndax euh, jamono ji maa ngi ànd ak euh, Chérif Dia moom tamit mu ñëw gunge ñu ci biir liggéey bi Chérif liggéey bi jamono ji mu doon loo xamante nit ñi ngi xaarandi Sénégal yëpp ñi ngi bëgg xam ana yan list Euh, ñoom ñooy participer ci élection 17 euh, novembre yi waaye gis nañ ne mandataires yi ba léegi ñoom euh, ñi ngi ñëw fii. waaw Habib maa ngi lay nuyu di nuyu Ablaye di nuyu mbokk yi ni nga waxee noonu la comme tey daanaka on est à moins d'une ci li nga xamante ne mooy clôture li yi te tirage au sort dafa amoon xëy na moo tax nga gis mandataires yi li ci bees moom mooy lool mooy tirage au sort boobu moom moo tax gisoo fi sax rush bi nga fi daan gis mais habituellement ku amoon euh, maanaam habitude di ñëw fii daan nga gis ni bu ñu yegg see minuit da ngay gis comme fee policier yi nekk gars yi doon doon sax dajji bunt bi di xëccoo xëccoo boobu nag amut ndax li ñu bëgg mooy ñu daal di fay teew ñoom ci kaw premier étage bi am na nag rang bu gudd bu fa ne gars bu ñu ñëwee xëy na danoo bëgg rek ñu gis leen ngir ñu bañ a foor kuloo moom moo tax mais fa la ne nekkaat di defaraat liggéey yi am na ñoo xam ne seen liste ba léegi matut mais comme yegg si ci kaw di fi gis sax ñu faraan fi ba ëllëg xëy na loolu moom moo ci bees li ci bees na wax nga ko parce que ce qui est intéressant boo commencé ci parti au pouvoir ndax ay na ko moom mooy seen liste ñi nga xam ñoom ñooy Pastef ak ñeen ànd loolu nag c'est pas une surprise parce que aura bi nga xamante am na ko campagne bi mu war a habituellement aussi Sénégal premier ministre yi fi yàgg a seen liste bari commencé ko ci li nga xamante ni mooy ñoom Macky Sall mi fi nekkoon gisoon ancienne premier ministre donc yàgg na ndax moom mooy défendre bilan moom moo bëgg majorité fële euh, waxuñu nag liste ñun ça nous ñu xam Dakar Dakar quand même la boo xoolee parce que juróom-ñaari député ñu ngay xëccoo nga xamante ni moom mooy euh, ci département bu Dakar ak loolu muy loo xamante kam am na solo gis nañ également lii fi amoon ci élection yi moom mooy intercoalition à l'époque Pastef ñoo ko doon def ak ñin àndaloon ren nag opposition bi ñoom ñoo ko def xëy na ils ils vont maanaam ñu ànd seen biir suñ ko defut ils vont disparaître parce que nature scrutin xamante ni moo jiite euh, jàmm ak njëriñ seen coalition boobu ñu ne dàqul ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy alliance libérale APR bokk seen biir parce que am na suñ source bu ñu wax sax ne c'est vrai que amoon na jafe-jafe ci élection présidentielle yi mais moment bi comme dañoo war a ànd dañuy ànd rek bu ñu paree ñu xëy ñu régler seen ay divergences et nga également ñi nga xamante mooy euh, euh, sàmm sa cadre mooy coalition bi nga xamante ne gis nga ci ñoom Khalifa Sall gisoon ci ñoom Pape Djibril Fall gisoon ci ñi nga xamante ñoom ñooy waa PUR ay Anta Babacar Ngom Bougane justement ñoom it dañuy ñu xool département yi par exemple boo jëlee département Euh, ku ne xam na ni Pikine xëy na bastion PDS la dañ koy bàyyi xëy na foofu waa PDS yi ñu jiitu fa ci seen intercoalition bi Kër Massar boobu ba léegi tamit muy département bu mag foofu tamit ñu ne ku mel ne Ba jiite Ndakaaru comme euh, fii Barthélemy Diaz mooy maire bi également foofu ñu bàyyi koog tête de liste bi bu dee liste nationale bi nag ku nekk demal sa bopp donc loolu mooy li nga xamante ni moom moo fi am ana attendant quand même ñuy wëraat gëstu xool li nga xamante moom mooy liste particulière mais mënuñoo ñàkk wax jiite ko ndax dafa am ay démission yu fa yoo xamante on confirme ça Zator Mbaye Malick Diop mi nga xamante ni moo nekkoon porte parole bi Zator Mbaye jiite woon euh, les jeunes de l'AFP dañu mer parce que dañu jàpp ni euh, entre euh, ñoom ñoo ko waxee noonu vieux bi maanaam ki nga xamante ni mooy Moustapha Niass jiite parti bi nam doxalee ci wàllu investiture yi neexu parce que ku mel ni Mbaye yi comme le vieux euh, bon commence à se retirer ci vie politique bi jiital mbay Dione ñoom nag ànduñ ci ba tax na kon y a un malaise quand au sein de l' alliance pour la euh, l' alliance des forces de progrès ndax ñoom it ñi ngi woo àndoon ak ñi nga xamante ñoom ñooy Amadou Ba merci euh, Chérif Abdoulaye euh, dégg nga tamit euh, analyse bi nga xamante ni Chérif Dia def na ko ci loolu tamit la ñuy def ngir mën leen gën a mën a toppal tamit li nga xam ne moo di dépôt liste yi jamono ji fii ci direction générale des élections jàppal ne tamit euh, fii ak muy jeex dinañ dikkaat waxaat askan wi fan lañ ci toll. mais euh, abi bala ngaa dem rek ce serait bien ñu xawal aussi PDS ak euh, kan mooy ñu jiital ko loolu aussi moo tax c' est yoo xamante ni c' est à ñi ngi xool ba xam kan la ñuy jiital quand même ci ñi nga ni mooy liste yooyu même si intercoalition am na mais d' certaine manière ne yoo xamante ni dañ dem sur la liste nationale ba tey loolu surprise lay doon ndax euh, ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy mandataires yi sànq ba léegi bu ñu leen laajee rek dañ naan après après keneen ki sax moom dafa ne dans trois jours dinañ mën a xam kan mooy doon euh, tedd de bi waaye loole tamit li tëw a xam yàggul loolu lañ mën a wax Abdoulaye ñu topp li nga xam ne moom mooy information bi. <laughs> Habib <laughs> Habib da ngaa teel a dem mais bëggoon nañoo xam. mayo moom mayo <laughs> moom ban liste la bokk parce que mayo bi moom. mayo bi moom foo génnee quoi euh, Chérif merci beaucoup xam nañu ci li nga nekk mais tu y es allé quand même merci. merci Ablaye fi mu fi mu cité noonu. ci coalition. <laughs> APR ak. Euh, PDS ak non ak PDS ak Rewmi. waaw nu ñuy àndee. du ñu tënkee ñoom seen biir. Mhm. seen waxtaanu biir nekk. Mhm. xam nga am na ci ñoo xam ne sax newoon nañ ni la Ablaye Wade defoon. Mhm. Macky Sall daf ko war def ñoo nekk tête de liste. ñenn ñi gàntal ne loolu moom xel xalaatu ko. waaye lañ ko nangul mooy. yow yaay nekk locomotive wagon yu topp ci c'est-à-dire APR mooy jiite nekk tête de liste PDS ak réew mi topp ci ba tax na bi ñu leen waxee loolu ne leen nag léegi may nañ leen loolu APR jiite laa aussi dafa am problème. Mm-hmm. ay arbitrage. Mm-hmm. parce que dañ amee tendance yu dégage yow am na ñoo xam ne Ablaye Daouda Diallo la ñu faral ne moo ko war a nekk. Ah, am na ñoo xam ne comme Macky seen président. waaw dañ bàyyi mu tànn am ne a nekk. wala joxatuñ <laughs> <laughs> yu bari yu bari ci nekk. Mm. bon c'est vrai pour Khalifa Sall là c'est clair et précis ñoom seen mm. bi ah ni mu leeree ñëpp ne comme ni ko Ayib dafay wax léegi le le Pastef tête de liste bi Ousmane Sonko lay nekk. Mm. mais xam nga aussi euh, Ablaye. Mm. jeu politique bi coalition yi dañuy faussé dañuy tax du am visibilité dans le jeu politique parce que xam nga parti politique c'est pour la conquête du pouvoir. Mm. bu njëkk ba da ngay dem suutee tes propres ñu xam lan ngay peser mais am na parti yoo xam ne bi ñu leen ba léegi tey weesu nañ plus de 300 partis. musuñu pesé wu xamuñu lu ñuy lu ñuy kii mm-hmm. c'est pourquoi moo tax quelque part <laughs> que parti boo xamee xamoo tey lu muy daal comme nangu na ko nañ leen ko nangu mais nag loolu <laughs> aussi voilà Sénégal war nañ ci waxtaan ëllëg xool ba xam ne parti bi xam nga xam xam nga xam bu ñu defee coalition ñu ne waroon def ko war ngeen a pesé wu bon je pense que mm-hmm. Pastef ak choix wu Ousmane Sonko mooy damay demal sama bopp mm-hmm. gis nga li ci jógee tamit <laughs> damay demal sama bopp tamit nit ñi nit ñi histoire waaye defe naa ni ku ne damay bëgguma ku ma wéttali mm. loolu ku ci xuloog moom yaa ko tooñ sa mm. ça <laughs> est très compliqué l'histoire des coalitions là mais en tout cas chacun va aller à la conquête du suffrage en tout cas mmh. bon qu'est-ce qu'on peut dire de plus parce que DG tëj na mm. vraiment mais wax nañ ni nit ñi dugg nañu noonu la ñuy xam naa ne dañuy dañuy traversé ba naa gars dañuy nuit blanche non mën nañ fa nekk ba 11h c'est-à-dire que boo xësee ba dugg rek cest dire que voilà tu es tu es dedans voilà ñoom c'est juste pour éviter que que ñu ni da nga da nga. bien sûr mais suba ba midi. Uh-huh. mën nañ fa nekk continuer. wax nañ ndax pour pour pour pour complément dossier am déet. <laughs> waaw ma ndax loolu am na ci am déet. waaw ah, loolu day moom beneen kii la parce que ñi dugg ci biir hmm. ko bëggee mottali <laughs> fa am ku jógee ci biti ah, mottali ko. loolu nag xamul ndax parce que je sais que ñi nga xam ne dañuy ñëw après l'heure DG dina jël sa dossier. Oui. mais après daf koy déclarer forclos. bien irrecevable. oui oui c'est-à-dire que même après minuit boo ñëwee ñoom mun nañ jël sa dossier. mais après su boobaa non après non après minuit. après minuit pour ceux qui sont déjà dans. waaw non dama ni ñi nga xam ne cest à ñi nga xam ne dañu dépa dañu déposer après l'heure oui xam nga mun nga mun nga ñëw déposer après l'heure mais su boobaa buñ ko jëlee tamit jàppal ni sa liste boobu du jaal parce que day forclos parce que tu as dépassé déposé au-delà du délai qui est requis. mais je pense que le consensus quand même li ñu defoon Babacar. je pense mm. que ça ça mérite de réfléchir parce que loolu je pense que c'était ça en fait. Mm-hmm. que ce n'était pas de leur faute bu ñu déposé après minute l'essentiel c'était d'être là. non dafa am ñaari aspect non dafa am ñoo xam ni man li may wax mooy ñi ñëw. avant te xëy na di xaar rang. di xaar rang bi ñëw nañu avant mi parce que mën nga ñëw depuis 22 heures te minuit déposé go parce que affaire yi dafa xam léegi nag moo tax ñoom dañuy fexe def lu tout ba dugg biir DG waaw c'est ça que maanaam ñu dugg ci biir waaw ba ñu tëj maintenant nag dama ne bu ñu tëjee mhm. am na ñoo xam ne mun na ñëw déposé te boo déposé boobu tu as déposé au la du délai requis Oui, mais ça. Enfin, bon, ça n'a pas de sens, quoi. Est-ce que est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est ça. bon je pense parce à... que parce que quand même on considère. non au oh, au oh, que xat-xat yi la ah je pense que boobu duñu ko. bon façon duñu consigné nii. au delà au delà de au delà de minuit dañuy rejeté. non il peut non non non non. non, non je suis sûr de ce que je dis non. Mmh. parce que non non non, non au-delà de minuit ils rejettent pas en fait ce qu'ils font. Mmh, c'est ça ils ferment à minuit. Oui. mais ceux qui sont à l'intérieur. Mmh. du fait de l'encombrement. Hmm. non ñi dugg dugg nañ ba pare ñooñu amatul problème mais ñooñu la. non de toute façon keneen duggul man kay ñi duggul laa wax ñi duggul laa. non ñi duggul. oui déposé wuñu sax. non ñi duggul ñooñu permettre ñu sax ñu déposé ñi dugg amatuñu problème mais ñi dugg dinañ continuer di déposer. mais absolument même suba 6 heures du matin. mais absolument mais dugg permet de déposer sans mention. quand même mais ñi déposer au-delà du délai nag. non ils déposent pas au-delà y a du délai parce qu'ils sont. ñu ne ci biir de. je parle pas de ce qui est ce, ñi duggul ñi duggul non ñi duggul moom bokkuñu. voilà ñi duggul bokkuñu moom bokkuñu. donc ñoom on ne ci biir donc ñoom on ne reçoit pas le dossier. oui déposé guñu parce que il y a encombrement. voilà parce que c'est ça ok c'est ça voilà ñooñu moom. c'est clair raw nañu moo tax euh, commissaire Aziz Sarr il avait très bien dit. Mm-hmm. minuit dañuy tëj. on est en phase loolu mooy loolu la. voilà dinañu réguler nag ñi ñëw ba minuit. waaw voilà ñooñu nag moom. d'accord ba 6 heures du matin dinañ déposé. kii dugg moom on ne fait pas mention. Euh, kii moom dugg na ba pare moom dugg na avant minuit waaye ki ah. duggul moom du dugg nga léegi parce que bu dul bu doon loolu kon tojante bopp léegi lay commencé. <laughs> non non non c'est comme ça. Eh boo xasee ba dugg moom bu ñu xasee ba dugg moom. je pense que après ci DG la dépendre. Mm. quoi mm. bu amee encombrement évidemment mm. si tout le monde vient à 23 bon l'administration est là pour 23 mais nañ leen may parce qu'ils viennent entre 22 et minuit. ci la ñuy mais boo xasee ba dugg ci biir kër gi moom. oui oui nga tu sécurisé. merci infiniment Abdoulaye on joue on joue mois d'octobre un match important contre le le Burundi, le Malawi. Malawi ok. oui on joue ici à à Dakar. le 11 nañu fa xastalu nag de. waaw mais faxastalu bi lu baax la quand pour ñu xoolaat suñu bopp wala. waaw loolu nag aussi munu ci munu ci ñàkk mais xam nga tey for nañ ci wu bay déjà gis naa ko sax ci GFM. ñu ne l'État acte la non reconduction du contrat de Aliou Cissé à la tête des Lions. <laughs> donc euh, non mais Aliou sax ña je pense que Aliou a annoncé. doyal il a annoncé pour que ñu gunge ko. il est vraiment sur la la fin moom ci boppam annoncé na ko. bind na mm. message annoncé ni vraiment li ci des nañ ko gunge. Mm. et Aliou mérite quand même. <laughs> man de wax naa ko fi keroog moi je reste sur Olembe <laughs> voilà je ne veux pas descendre je veux pas. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, émotionnel boobu. Mm-hmm. defe dama ko bloqué ci kaw bëgguma mu wàcc. mais Aliou a demandé ñu gunge ko rek mu Aliou mérite quand même de sortir par la mm. grande porte. Mm. mais absolument tout à je pense que il restera une légende quand même du football aussi bien en tant que joueur capitaine irréprochable dem ba jeex. Mm. aussi bien en tant qu'entraîneur parce qu'il a valu quand même notre premier titre brûle pas nos stars. parce que quoi qu'il advienne bon. c'est le seul entraîneur sénégalais bu gagné Coupe d'Afrique des mm. mais d'autres aussi te répercorderont ko en neuf de présence à la de Lyon pour un trophée. waay ne. am na ñoo d'accord na am na ñoo xam ne xam nga dañuy xool rek ñaar yi ñi nga xam ne bokkuñu xalaat li ñuy wax. Mm, parce que tey je dis que c'est l'entraîneur sénégalais le plus titré. Mm. Mm-hmm. c' est seul entraîneur bu gagné Coupe d' Afrique des Nations. <laughs> ñi nga xam ne ànd ñoom dañ naan la mais en neuf de presse à la tête mm-hmm. ku fi nekkoon xëy na tu aurais peut être eu une Coupe d' Afrique des mais en 50 ans n' a rien gagné. mais mais le <laughs> mooy l' environnement. Mm-hmm. des Lions. comme du football mérite toujours d' être pacifié. et d' être apaisé. parce que ci loolu rek la ñuy résultat. au delà nag de l' environnement des et du football. d' kata yi ñu jógee avant élection Bassirou Diomaye eh, Faye bu ñu bëgg a delluwaat ci ay kata wax dëgg yàlla nit ñi saayi nañ ci sonn nañ ci c'est pourquoi le pays là doit respirer nit ñi dal nit ñi dem ci seen ay soxla hmm. ñu nekk ci leen mais classe politique bu bu jógee ci benn élection rek commencé xoolal campagne électorale des campagnes électorales qui ne se terminent jamais ki ne s'achèvent jamais doy nañ ci góor ñi daal wax dëgg yàlla dañuy ñaan réew mi dal ñu liggéey ko parce que développement xam nga des fois ceux qui la démocratie en prônant la dictature disent que c'est la dictature sax qui développe certains pays mais kenn ñaanu ko yàlla nous voulons la démocratie mais nag. Hmm. xam nga bugguñu anarchie. gis nga réew mi nañ ko pacifier. foofu nga ne eh, sànq na daf ma échec nga ne réew mi ban kii la bokk. réew mi ci Ablaye Wade bi la bokk. non réew mi. ak APR ak PDS version Ablaye Wade Karim Wade ñoo bokk ñoo bokk alliance ñoom ñoom ñoo ñoo ànd bon xam nga léegi am na ñaari PDS am na PDS Doudou Wade am na PDS Karim Wade bon donc voilà mais ñoom seen waxtaanu biir nekk réew mi PDS Ablaye Wade la àndal réew mi réew mi waaw waaw PDS Abdoulaye Wade mooy bu kees Karim Wade PDS Karim Wade ah, ñoom ñoo ànd ak APR Idrissa Seck Ablaye Wade ñoo ànd moo tax xam ne politique mën na lu ne <laughs> xam nga tey booy xool non dama expliqué rek non xam nga da ngay junj junj leen borom xel <laughs> li xew diggante Idrissa Seck ak Abdoulaye Wade amoon na benn député Idrissa Seck waaw dama ne xam nga li xew seen diggante déchirure yoo xam ne profonde mais li daw li mhm. a ànd nga xam la sport évidemment tu aimes quel sport football aussi non man nag lamb a kii la quoi <laughs> xam naa ah, la woon kii bi waaw ah, man moom signature euh, ah, combat la sax euh, Euh, Modou Lo quoi Modou Lo ok bon. fédération de lutte ou bien CNG encore. xam nga aussi c'est le provisoire wow, mm. mm. bon là aussi ça va arbitré par le ministère mm. des Sports. il faut qu'on nous dise est-ce que encore remplir. fédération foot sax fu ñu toll ci AG bi. non xam nga AG bi moom bu aale kala. ci report waat bi xam nga mën nga jëm au mois d'août deux mille vingt cinq ndax waa ji. Ah. nee na mois de mars laay annoncé ndax man damay nekk candidat wala du ma nekk candidat mais l'assemblée générale qui va hein euh, permettre aux, aux, aux, aux 400 mmh. électeurs-là mmh. de choisir un président de fédération. Merci ce sera beaucoup, pour 2025. Merci ouais. beaucoup. Je pense qu'on a tout dit. Vraiment, ñu ngi leen di sant di gërëm ci gunge bi Babacar Ba président du forum du justiciable ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ci éclairage yi et ci xalaat yi aussi Abdoulaye Fofana Seck merci beaucoup représenté woon fii commission communité ad hoc pour la pacification hein, pour le le dialogue. waaw voilà. des forces vives. xam voilà, <laughs> moom jaatu na ñëpp xaj nañ ci seen biir. donc nañ continuer man je ne désespère pas. il faut Bien pas désespérer et non cher grand frère là. Babacar Aliou ne désespère pas. parce que Sénégal jar ko pour Sénégal nekk ci jàmm. et puis on était en direct au, à la DGE avec Habib Faye ak Chérif Dia. Vieux Diouf merci beaucoup ñu lay sant la gërëm maa ngi ñëwaat léegi ci kanam ak l'équipe Info comme tey moom Chérif sax traversé na début <laughs> de situation bi mu nekk donc man it voilà ma traverse rek on revient tout à l'heure incha allah avec euh, la rédaction à 6h30 pour Info Matin merci beaucoup merci